wajalilaayi maskani tuubaabaat misrak mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrak mi abijaayi xayri manabaat wasalli an alayhi abdana salaat xaatimi nabiyina wa imaami almursalina subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddalin وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائج ويرسل الخواتم ويستسقى القمم بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بارد كل محتم اللهم صل على النور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأخيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد النعمة لا بفضله وكملا كل ما ننهو نقتله وأرضنا كل ما نختار يا الله وأرضنا كل شيء صحب وسيع عرن ويسان كل شيء تعفير يا الله tawil lana xamrana sahid lana badanan wa hab lana rashda wa tawfiq yàlla wa dammiran kula ki nga xamante ni moo nu féete fii ci wàllu kilifa donte la kilifaam lanu teew na ak njabootam mu ànd koog ñoom ñu taxawal lu mel nii di sabar gi di mbirum sëriñ Touba li nga xamante ni moo ci gën a dàq sëriñ Cheikh Lo mii nga xamante ni niru na rekk kuy oyof ak di oyofal boppam waaye dis gan la def koo xamante ni xalif général bu taxawee boo taxawee am na loo xamante dal koy jël teg ko say loxo muy xalif général bu Baye kooko am na lu ko yàlla defal muy sëtub sëriñ maam bayloo ki nga xamante ni moo fi andi maam Cheikh Rafal fii ci kees ñun ñëpp ñu ameel ko ci cant amel ko ci ngërëm ndax kat su du woon maam bayloo dina ñaaw lool kon Cees day xëy na maam seex lu nekk mën na ko def waaye kon mën naa am mu nekk feneen fu fi waaye moo nu ko andil kees gii loola doyatu ci mu dëkkalal nu ko Madina Fall Madina Fall gii ngay gis maami Serigne Cheikh Lo mii moo ko tànn wax ko maam Cheikh mu set ko nangu ko te ko muy dëkk ba nii lépp képp koo xamante ne waxuma la yaa ngi dëkk Madina Fall waaye rëddu Cees yaa ngi fiy dëkk soo dee am jàmm wala ngay dox te amoo benn pakk amoo benn loo xamante lay gàllankoor la seen maam ci la seen maam maam mbayloo taxawee ñu ci boor bépp ñeewante njabootu Cheikh Ibra Fall gépp dimbali leen ba kenn du ci am dara loo xamante ni looy ragal la tey ak looy ragal ëllëg ñu dégmati ci mag ñi ñuy wax ni maam mbay day maam seex ko dool fii ndax ëllëg yowmal xiyaamatul akbar lépp loo xamante ni jóge na fii wala nga nar am benn gàllankoor maamam moom mii la maam seex wànni ko na nga ko àndaale kon kooku nun xaw ma kenn waaye nun waa Thiès mënuñu koo fay loolu li li sant cay gërëm rek sa gërëm njabootam gi nga xam ni ñoo ngi ñoom a dëkk ñu féete nu bépp boor yor nu bépp boor kon bu teewee nii kon yëf yi ba tey mu ngi ci aw yoon wu rafet sëriñ Cheikh Makhtar yaag délégation yi ngeen àndal ci lépp di ci waa kër gi di njaboot gi mboolem. njabootu ko artisanat gi ñoo ngi nii góor jigéen mag ak ndaw a ah, ñu ngi leen di sant cant goo xamante ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem di wax ne bés bii biñ ko taxawalee niru nañ ci lu ñu néew doole waaye yàlla ak Cheikh Rafal ak Sëriñ Tuubaa dooleel na leen ci ñi nga xamante ni ñoom lañ ko àndal ak ñi nga xamante ni booloo googu ak bokk googu ak ànd googu ba ñi nga xamante ni ñoo ko war a yëg ak ñu war a cee waxtaan ak ñoom ñëpp def nañ ko nañ ko war a defee kon jërë ngeen jëf mam Mor Thiam seen taxawaay rafet na. bañ defee loolu dem ci président daa daal jël alalam def ci moom faw dinaa wax ni président ndax alalam def ci dem ci mooy jëkk a toqi fii sunu borom dogal sunu dëkkandoo yi nga xamante ni lu xew ci ñoom ci ñun ñu jóg jóg taxaw kenn ku ci nekk def ci participation boo xamante ni weesu na sunu xalaat parce que bi ñu jëfee seen jëf yi mu rëy lool ci waa artisanat ci kuy góor ak kuy jigéen ak képp koo xam ne bëgg nga yëkkati ko artisanat maam Mor dafa waxoon ni daa bëggoon kenn ku ci nekk ñu tudd saw tur ba sëriñ bi ak président mi xam ne ñii jàppale nañ ko ci seen njaboot gii waaye ñoom ñoo gàntal li ñuy def yàlla doo nga tax ñu koy def ak yonti beeg sëriñ Touba utuñ ci daray lëgg utuñ ci daray àdduna kon sëriñ Seex baati na nga boo na nga boo xamante ni dañ la ñaan nga dolli leen a ñaanal ñu gën a man li ñu bëgg incha allah ñu gën a dolli li ñu bëgg te di ko jëf ci yoon wi di ko jëf ci njaboot gi di ko jëf ci famille bi ak mbokk gi ak xarit yeeg dëkkandoo yi yàlla gën leen a kàttanan ba li ñu bëgg lépp ñu mën koo defee nañu ko bëggee ndax kat koo xamante ni àddunaa leen boole ci benn jamono ci benn barab ngay rafetal bis bu yàlla sàkk te li ngay nekk amul dara looy nekk loo xam man nga ne fekk nañ leen ca te ñoom luñ lu ñu nekk nun ñu fekk nu ci defal nu ci loo xam ne nun sax duñ ko def defal nu lu kawe suñ jot sëriñ bi président ñii bokk nañ ci ñi téye seen njaboot yi di leen jàppale bu baax bi loolu amee itam Serigne Cheikh ministre de l'artisanat itam yëg na mbir mi taxaw na ci taxawaay bu mag kooku nag dañ lay jiitalal cant gi ak ngërëm gi balaay muy agsi noo ngi ñaan yàlla mu yëg si ndax sàkku nañ ko si moom mu ñëw teew fii gis njabootam gii li ñu taxawal ak ngërëm loo xamante war nañ ko koo gërëm wala cant guñ koo war a cant ñu man koo biral mu di ko dégg bu wér te lépp tegu ci ginnaaw président Amadou Matar Seye mii kon Serigne Cheikh ñii ñoo fi nekkoon sant na bu baax ndax sunu worma sunu xarit sunu dëkkandoo sunu benn sunu genn wàll président Ibrahima Ndiaye mii président tribunal mi ngi nii teew lii lu rëy la koo xeep dey li ngay naw du bari njaboot gu toll nii nekk nii amuñu doole de waaye ñi leen séq ay kilifa lañu ñi leen seq ay kilifa lañu kon képp ku seq ak ñoom nanga xam ni lu nu doon doon doon gune am na cër bu leen yàlla jox yàlla na ngeen ko gën a man nu gën koo man ñu leen di wax ni leen daal dénkaat nañ leen jabar gi bu baax. di ñëpp nag. di jiital ci nuyoo bi. di jiital ci nuyoo bi. Cheikh Ahmadou Mokhtar. Cheikh Ahmadou Mokhtar. ci teg Ibrahima Ndiaye. ci teg Ibrahima Ndiaye. président tribunal. président tribunal. ak bokki taalibe yëpp nag. ak bokki taalibe yëpp nag. ñu ngi ñëpp. ñu ngi nuyu ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. di sant ñëpp. di sant ñëpp. di jaajëfal ñëpp. di jaajëfal ñëpp. seen jëf ju tedd ji. seen jëf ju tedd ji. nga xam ne ak bëgg rek. nga xam ne ak bëgg rek. ci ngeen ko teg. ci ngeen ko teg. ab jaam. ab jaam. day bëgg yàlla. day bëgg yàlla. bëgg yonent bi. bëgg yonent bi. bëgg it sëriñam. bëgg it sëriñam. looloo mar looloo waral. looloo waral. ngeen woote bisu safar bii. ngeen woote bisu safar bii. ngir sant ci sëriñ Touba. ngir sant ci sëriñ Touba. man laa yaskuru naas. man laa yaskuru naas. laa yaskuru laa. laa yaskuru laa. ku santul nit. ku santul nit. doo sant yàlla. doo sant yàlla. li ñu sunu li ñu sëriñ Touba defal. li ñu sëriñ Touba defal. lu ñu ko sant sant. lu ñu ko sant sant. deseel ko bor. deseel ko bor. lu ko sant sant rek. lu ñu ko sant sant rek. deseel ko bor. deseel ko bor. kon bis bii bisu cant la. kon bis bii bisu cant la. di bisu waajtaay. di bisu waajtaay. jëm ci bisu mag ba. jëm ca bis bu mag ba. muy xarajtu yow ma sabti. muy xarajtu yow ma sabti. saamini xasar. saamini la asar. li xidmatil muxtaar yi. li xidmatil muxtaar yi. fii sahri safar. fii sahri safar. muy bis boobu nga xamee ni. muy bis boobu nga xam ni. ci la ràññaa ci la ràññaa noonu. ngir liggéeyal yonent bi. ngir liggéeyal yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi muy fukki fan. muy fukki fan. ak juróom-ñett. ak juróom-ñett. ci weeru safar. ci weeru safar. daje dajeeg bisub gaaw. dajeeg bisub gaaw. bis boobee. bis boobee. bi sëñ Tuubaa liggéeyalee boromam. bi sëñ Tuubaa liggéeyal boromam. ba yàlla nangu ab liggéeyam. ba yàlla nangu ab liggéeyam. la mu ko fayee. la mu ko fayee. mooy bis booba. mooy bis booba. da koo wax ni. li li nga bëgg lépp doon ko wut doon ko wut am nga ko am nga ko ci bis bii nga xam ni ci nga laxase ci nga laxase ngir liggéeyal yonent bi ngir liggéeyal yonent bi ngir pas-pasam bu rëy ba ngir pas-pasam bu rëy ba pas-pas boobee mu amoon pas-pas boobu mu amoon la ko suñu borom ni ko mooy sa bis la ko sëñ borom wax ni ko mooy sa bis ni ko nag dee ci sant sa borom nee ko nag di ci sant sa borom te wax sa ñooñ te wax sa ñooñ ñu la ciy santale sa borom ñu la ciy santale sa lu ma la defal dellusee bu bis boobu dellusee danaa ko ful danaa ko ful ba mu ba mu tollaat noona ba mu tollaat noona ma defalaat la ma defalaat la looloo waral looloo waral yoon wi amul tànk ganaaw yoon wi amul tànk gannaaw tànk kanam rek. tànk kanam rek la am. fu mu toll ren. fu mu toll ren. bu déwénee. bu déwénee. mu toll fu ko sut. mu toll fu ko sut. ndax yàllaa toll noonu. ndax yàllaa toll noonu. te moo koy fayee noonu. te moo koy fayee noonu. dafa wax ni. dafa wax ni. daxaw tuxoo. daxaw tuxoo. wax di. la daal xaamuusi. la daal xaamuusi. bil Moustapha. bil Moustapha. wa urmati naamuusi. daawutu woo woo naa ko. daawutu woo woo naa ko. moom sunu borom. moom sunu borom. wax dii cig wéet. wax dii cig wéet. la dal xaamuusi. la dal xaamuusi. bi ma nekk ci géej gi. bi ma nekk ci géej gi. bil Moustapha. bil Moustapha. ci daraja yonent bi. ci daraja yonent bi. wa urmatil naamuus. wa urmatil naamuus. ak war may Seydina Jibril. ak war ba yàlla wuyu ma. ba yàlla wuyu ma. قلت وأيامي قلت وأيامي أصدرت أصدرت أموسي أموسي وفزت وفزت في الخاموس wax naa man sëñ bamba xoltu naa man sëñ bamba wa ayaami wa ayaami samay tay samay tay astarat day gàcceel astarat day gàcceel umuus yi samay démb umuus samay démb wa fustu texe wa fustu texe fil xaamuusi fil xaamuusi ci géej gi ci géej gi bil xaamuusi bil xaamuusi ci may ci may nee dem gi ma demoon ci géej gi nee na dem gi mu demoon ci géej gi di liggéeyal yonent bi di liggéeyal yonent bi ci la ma sama borom joxe may yi ci la ma sama borom joxe may yi malakani dunya malakani dunya wa uxra samadu wa uxra samadu maa indahu maa indahu lixtaaruhu muhammadu wax ni yàlla may na ma sax wax ni yàlla may na ma sax adduna ak alaaxira ak alaaxira ak lépp loo xamee ni ak lépp loo xam ni tànnal na ko yonent bi tànnal na ko yonent bi mu gën mu gën yàlla jox na yàlla jox na kon kooku mbiram kon kooku mbiram du woyof du woyof du deltu gannaaw it du deltu gannaaw it ni ko ji bi waxee léegi ni ko sëñ ji bi waxee léegi sëñ bi moom loo ci amul sëñ bi moom loo ci amul sa pas-pas ci àggul sa pas-pas waaye moom waaye moom lépp loo ci moom lépp loo bëgg ci moom am na ko am na ko ndax eh, yonent bi jox na ko ko ndax yonent bi jox na ko sunu borom jox na ko sunu borom jox na ko kon lu waay amul ci moom rek. kon lu waay amul ci moom. ci yow la ci yow la. noo ngi sant mbooloo mi. ñi ngi sant mbooloo mi. ci seen booloo gi booloo. ci seen booloo gi ngeen booloo. di sant sëriñ bi. di sant sëriñ bi. waxtasimoo bi ablillahi jamian. moo bi ablillahi jamian. wala tufarraxu. wala tufarraxu. loolu sunu borom moo ko wax. loolu yàlla moo ko wax. na ngeen booloo. na ngeen booloo. ci buumug yàlla gi. ci buumug yàlla gi. bañ a tàqalikoo. bañ a tàqalikoo. booloo nag. booloo nag. mooy bokk pas-pas. mooy bokk pas-pas. bokk ak bëgg. bokk ak bëgg. bokk ak bañ. bokk ak bañ. di yëkkateendoo. di yëkkateendoo. di tegandoo. di tegandoo. innamal muminuuna. innamal muminuuna. ixwatun. ixwatun. fa asliqu. fa asliqu. bayna axwaykum. bayna axwaykum. wattaqullaaha. wattaqullaaha. la'allakum. la'allakum turhamuun. turhamuun. yàlla moo wax ni. yàlla moo ni. jullit yëpp. ay bokk lañu. ay bokk lañu. suñu rafetalee bokk gi. suñu rafetalee bokk gi. te ragal suñu borom. te ragal suñu borom. laxallakum. laxallakum. jombul. jombul. ngir ga. ngir ga. turhamuuna. turhamuuna. yéen may yàlla yërëm leen. yàlla yërëm leen. ne yàlla moom du wàcc ndare. yërmande yàlla moom. du wàcc ndare. du wàcc ndare. jaam yi. jaam yi. dañoo boole seen bopp. dañoo boole seen bopp. a jamaatu. ak jamaatu. rahmatan. mbooloo. yërmande la yërmande la. ndax loo mënu rek. ndax loo mënul rek. sa morom man ko. sa ko. loo amul. loo amul. sa morom ko. sa morom loo xamul. loo xamul. sa morom xam ko. xam ko. su booloo amee rek. su booloo amee rek. yërmande daal di am. yërmande daal di am. kon booloo gii. kon booloo gii. yal na ko yàlla saxal. yal na ko yàlla saxal. ci barke borom Touba. ci barke borom Touba. barab bii ngeen di jàng Alxuraan. barab bii ngeen di jàng Alxuraan. di fi jàng xasida yii. di fi jàng xasida yii. yal na ko yàlla def. yal na ko yàlla def. muy barabu jàmm. jàmm. di barabu xéewal. di barabu xéewal. di barabu mucc. di barabu mucc. di barabu dolliku. di barabu dolliku. ci bu ne. ak waxtu ne. ak waxtu wu ne. ak saa su ne. ak saa su ne. sant nañ leen bu baax a baax. sant nañ leen bu baax a baax. gërëm nañ leen bu baax a baax. gërëm nañ leen bu baax a baax. ñoo ngi leen di ñaanal. ñu ngi leen di ñaanal. li ngeen di sàkku ci bis bii. li ngeen di sàkku ci bis bii. sunu borom defal leen ko. sa borom defal leen ko. weer wii kat. weer wii kat. weeru sëñ Tuubaa la. weeru sëñ Tuubaa la. yaa xaayi dan lii. yaa xaayi dan lii. doona kas wa safar. doona kas bin wa safar. mux ji la kas bin. mux ji la kas bin. wa silaaxin. wa silaaxin. loolu la wax. loolu la wax. ca nooru daara yi. ca nooru daara yi. yaa xaayi dan lii. yaa xaayi dan lii. yow yàlla yow mi ma woomatal. yow yàlla yow mi ma woomatal. yaa xaayidan lii yaa xaayidan lii doon a kës bin doon a kës bin wa safar wa safar ci ludul ak fàggu ci ludul ak fàggu ab tukki ci ludul ab tukki loo xam ne mox jël a kas loo xam ni mox jël a moo moo gàcceel ak fàggu moo gàcceel ak fàggu wa silaaxin wa silaaxin moo gàcceel yor ngànnaay moo gàcceel yor ngànnaay di ko wut di ko wut maanaam tukki mayewu ko moom tukki mayewu ko moom bisam bii bisam bii fàggu mayewu ko fàggu mayewu ko xare it mayewu ko xare ma mayewu ko mooy wasilaahi mooy wasilaahi fii safar yor ngànnaay yi bëgg ko yor ngànnaay yi bëgg ko nga mën ko am taxul nga am bis bii de yàllaa ma ko jagleel yàllaa ma ko jagleel rek yéen ñi tal maanaam fas yi boo si ñu takkaleen seen landat yooyu du ñu gis benn boor seen kanam rek la ñuy gis ku gëm da ngay gëm loo gëm sëriñ Touba loo bëgg sëriñ Touba gëm gi nga bëggam sëriñ Touba bëgg gi nga sëriñ bëgg sëriñ Touba du yow doo ci dara yow ma ala su la yàlla wax rasulullaay ni ballee mu ne ko tànnal ñooy àndal jamono foofu la jub am fa la dëng am fa la naafeq am fa la ku jub am te la sëriñ Touba tànn kon ku mu tànnul foofa tànnu la kon boo ñëwee ba jamono diw jur la diw di sa ndaw diw di sa baay nga dem a dem ba càgg ba a bëgg sëñ bi ne ci yow di nux nuxi nga muñ ko mun mën a ko muñ nga fekk sëñ bi nga jébbalu ci moom jox ko sa bopp ni aslamtu nafsi mooma too sa bopp sëñ bi la tànnoon yàgg na kon yow foofa nga war a mën a concentré wu ba xam ne alali sëñ bi nga alali sëñ bi nag daa am melokaan wu war a mel doo dem foo tolloo naan sëñ bi amul moroom yoral melokaan woo xam ni ku la gis xam ni ki la amul moroom loolu moo ëpp doole Cheikh Rafal kat jàngal nañu war na nit ñi toppe sëñ bi ndax maanaam bi nit ñi di jàngal moom da koo jëfe bi nit ñi jàngal alxuraan di ko firi Cheikh Ibra da koo jëfe moo tax jëfin wu mu jëf rek aaya alxuraan la mënoo egg ci murid saadix nag te yoroo melaw Cheikh Ibra Fall ndax mooy yoon wi Cheikh Ibra mooy yoon wi jàngal nañu nee na sëñ Tuubaa damay wut loolu réer tu ko wut lu du aw ci yoon kon moom fa mu teg tarixam bi di ko doxe maanaam ca ñàkk julli gaak ñàkk wor gaak yooyu ñun suñu yoon newu ci boo mënee roy royal boo mënta roy roy rombal yoon wi ñaar rek fi ne ku ñu yërëm ku ñu dimbale te Cheikh rek la Sëñ Tuubaa dimbale woon ñi si de ñëpp dañu leen a yërëm ñaar rek ka fi ne roy ak romb boo mun munta roy rombal toppandoo nag baaxul ndax day lay doyadiloo fexeel di roy rek bañ a toppandoo ndax boo toppandoo doyadi bu sëñ bi diree dara nga diri dara bu xëccee kurus nga xëcc kurus bu kàbbaree nga kàbbar yaay gën a ñàkk fayda ca kër ga ndax doo sëñ bi sëñ bi kenn rek la kon royal yoon wi maanaam fi mu tege benn la ci ndigal la tege ci ndigal yoon wi ci ndigal la tege bi mu tegee ci ndigal ba pare sëñ bi dañuy tuubaa li abdil muridin sadiqin lawumu bi xidmatin aw bi hubbin aw addiyaati foofa dong la mbir mi ne aw bi aw bi xidmatin aw bi hubbin aw addiyaati foofu la mbir ma ne léegi nag loolu loo ci def lu ne yàppal ne murid saadix la melaw murid saadix melaw murid saadix sëñ tubaa dañ ci dimbali dimbali dafa wax ni. ñeenti melo ñeenti melo la. danaa ko wax. danaa ko wax. bind bàyyi fi. bind ko bàyyi fi. ba bu ëllëgee. ba bu ëllëgee. kenn du ni. kenn du ni wane wu ma woon wane wu ma woon lu ñuy def lu ñuy def ba doon saadix ba doon saadix ñu ne ko lu mu doon ñu ne ko lu mu doon mu ni sifaatu saadixil murid mu ni sifaatu saadixil murid bixtisaar bixtisaar arbaatun arbaatun nasamtuhaa nasamtuhaa xaw faxtiraar xaw faxtiraar asidqu asidqu fii mahabbatin fii mahabbati sayxi abad sayxi abad samamtisaali samamtisaali amrihi amrihi ay su warat ay su warat wa tarkul ihraadi wa tarkul iqraadi mutlaqan walaw muqlaqan walaw bi baatinin bi baatinin alayhi alayhi fii maa xaraw fii maa xaraw wa mahoo wa mahoo salabul ixtiyaari salabul ixtiyaari li usni sannihi li usni sannihi bilaa inkaar bilaa inkaar wa kullu man jamaa wa kullu man jamaa fa kullu man jamaa fa kullu man jamaa haasihi sifaat haasihi sifaat min al muridiina min al muridiina fooy loolu siqaat noonu la ko waaye noonu la ko sëñ bi waaye nee na melaw murid saadix nee na melaw murid saadix ci gàttal ci gàttal nee na ñeenti melo la nee na ñeenti melo la ñu ne ko yan melo la ñu ne ko yan melo la mu ne asitqu mu ne asitqu fi mahabbatin fi mahabbatin da ngay dëggal ci bëgg sëb sëriñ da ngay dëggal ci bëgg sëb sëriñ asidqu fi mahabbatin seyxi abad nee na asidqu fi mahabbatin seyxu abad da ngay dëgg ci bëgg sëb sëriñ faw dangay ngay dëggu ci bëgg sëb sëriñ faw su mam su mam taali amrihi su mam taali amrihi ngay jëfe ay ndigalam ngay jëfe ay ndigalam ay ay suwarat ay suwarat fu ndigal rote rek fu ndigal rote rek nga def nga def mooy bëgg sëñ bi mooy bëgg sëñ bi di jëfe ndigal yi di jëfe ndigal yi mooy ñaar yi mooy ñaar asirqu fi mahabbatin sayx abat sumam di saali amri ay suwar wa tarkul ihraadi wa tarkul ihraadi ak bàyyi gaaral ak bàyyi gaaral looloo bari kat looloo bari de bàyyi gaaral day moom sëñ bi nangam sëñ bi nangam wuru war a wax nangam sëñ bi war woon a wax nangam lii la sëñ bi war a def lii la war a sëñ bi war a wax loolu du murid de wa tarkul ihraad wa tarkul ihraad bàyyi gaaral bàyyi gaaral mutlaqan walaw mutlaqan walaw ceeg boyal ceeg boyal walaw bi baatinin walaw bi baatinin fi maa xaraw fi maa xaraw ndigal donte dafa biiri sax ndigal ndegam dafa biir sax wala dafa baatine sax wala dafa baatine nee na na nga jëfe ndigal yi nga dafa jëfe ndigal yi rek boo àndoon ak sab sab sab taalibe boo àndoon ak sab taalibe yow yow murid bi yow murid bi nga ànd ak sab sëriñ nga ànd ak sab sëriñ te dëggal te dëggal bu la leen ci teen bi rek teen bi ci teen bi xamal yow booy dugg ci teen bi. waaw xamal ni boo dugg ci teen bi. dara du la ci fekk dara du la ci waaye loolu ñu ko ñu ko mën bëri. déedéet déedéet déedéet déedéet. loolu sëñ bi ma nangam ci teen bi. waaw. doo waroo excité. déedéet da ngaa war a tabbi ci teen bi. da ngaa war a tabbi ci teen bi de. waaw waaw. waaw waaw. boo toogee ba xaaju guddi. boo toogee ba xaaju guddi. sëñ bi ñu ñëw a demal ma Ndakaaru. sëñ bi la demal bu fa nekk naa ko lu may yóbbu. bu fa nekk mukk naa ko lu may yóbbu. ak guddi ak guddin loolu mooy tarkul ixraat loolu mooy tarkul ixraat bàyyi garal waaw waaw man de sëñ Muntaxa mii man de sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg yàlla na fi yàgg amiin ba may gént ni dana dana doon sëriñ ak tey jii ak tey jii ëpp na fukki at ëpp na moom mii wóor na ko te waa wóor na ma sëkk ndax ba mu amee nga ma ko wax ndax damaa damaa tëdd guddi waaw dafa tëdd guddi liggéey turu yàlla liggéey turu yàlla ba sama yaram tàng ba yaramam tàng ma tëdd guddi mu tëdd guddi ñu ne ma ndax xam nga sëñ Muntaxa ñu ne ko ndax xam nga sëñ Muntaxa ma ne sëñ Muntaxa moom sëñ Basiru mu ni sëñ Muntaxa mu sëñ Basiru ñu ne moom mooy jantub kër sëñ Basiru mu ni ñu ne ko mooy jantub kër sëñ Basiru sëñ kër sëñ Basiru mooy jantu kër sëñ Basiru ba muy ñetti ba muy ñetti yoon sëñ mooy jantu kër sëñ Basiru ñu mooy jantu kër sëñ Basiru moo mooy jantu kër sëñ Basiru ab jant nag day tiim ñëpp. day tiim ñëpp. day leeral fépp. day leeral fépp. sëñ Mountakha. sëñ Mountakha. li weesu rek. li weesu rek. xaw ma Covid lañ ko waxoon xaw ma. Covid bi. Covid xaw ma Covid loolu rek. loolu rek. war naa tax. war naa tax ñëpp bàyyi ko xel. ñëpp bàyyi ko xel. ku dul sëñ mun Muntaxa. ku dul sëñ Muntaxa. sëriñ sëpp laa wax. sëriñ sëpp. të tëju nañu tëju nañu ba mu def sëñ mun taxa moom rek a nekk ci jamono moom rek a nekk ci jamono tijji jumaam tijji jumaam di régler jamono di régler jamono ba lépp jeex ba lépp jeex kooku mooy sëñ Tuubaa kookoy sëñ Tuubaa kooku fu mu aw rek kooku fu mu aw rek foofa la nañ ko bàyyi ak boppam nañ ko bàyyi ak boppam nañ ko bàyyi ak boppam nañ ko bàyyi ak boppam na awale rek fu mu ñu awale rek foo foofaa gën foofaa gën maam Cheikh daa waxoon ni. maam Cheikh daa waxoon ni. jamono ju ma néewul. jamono ju ma néewul. sëñ Bamba néewu ca. sëñ Bamba néewu ca. yooyu jamono dana lëndëm. booba jamono dana lëndëm. waaye bu keroogee. waaye bu keroogee. fu doomi sëñ Tuubaa aw. fu doomu sëñ Tuubaa aw. aw leen fa aw leen fa. ndax lu jamono lëndëm lëndëm. lu ndax lu jamono lëndëm lëndëm. ñoom ñoo ñooy leeral jamono. loolu rek la doon leeral waaw waaw ñooy leeral jamono. jërëjëf loo ndax li sëñ bi leeral fii mooy ñaari sëriñam sëñ buy xam la yàlla ak bu xam bu xam lu yàlla nam di ko def ñaari sëriñ yooyu am sëriñ buy xam la yàlla ak sëñ bu xam lu yàlla nam di ko def sëñ bi xam dangay julli ga ña nga fa nekk nga xam ne ñoom sariya rek la ñuy topp ñoom dañuy xam le yàlla dañuy tiit ndax dañ naan kii nan la mën a kàbbar kàbbaru armal ba pare sëñ bi woo ko mu bàyyi julli gi fekk sëñ bi moom la mu gis gisoo ko moom la sëñ bi di leeral nii ndax sëñ bi li mu gis yow gisoo ko gisoo ko sëñ Muntaxa li mu wax rek maanaam sama kilifa dama koy bàyyeeg boppam ba bàyyi ko ba noppi bàyyi ko sama bopp loolu nañuy toppee kilifa dafa am xisa boo xam nag dama ko daan waxtaane te sëñ bi bëggu ko lool mooy Lat Joor bi mu dajeeg sëñ Tuubaa fii maanaam fii fii ci njaañoom njaga gii alxames maanaam Lat Joor daa toj mbul jàpp fa ay jaam daal di woo bàyyi ma jaxate kala ni ko ma jaxate mu ni ko mbàkke mu ni ko ab mu ni ko mu ni ko mu ni ko mu ni ko jóob mu ni ko jullit warta lekk alal mu génnewul masak jullit warta lekk alal ju mu génnewul azaka xaali ma jaxate mu ne ko jóob mu ne ko nu ñuy génne azaka mu ne ko juróom-ñeent bu ne fukkeel ba ngay génn la daal di génne maanaam téeméeri jaam juróom fukk ma jox ko xaali ma jaxate kala juróom fukk mu jox ko Mamoor Anta Sali sëñ Tuubaa booba maanaam fajar day génn ci kër gi ne ci àll bi ndax bëggul bëggul da lekk njël li ñuy togg ci kër gi ndax xam na ni maanaam la maanaam Mamoor Anta Sali ci la joor la koy jëlee te booba xam na ni maanaam alali mooy yàlla bi loolu amee sëñ Tuubaa ñëw fekk fa gan ya dafa ndànk gan yi nga fu mu wootee nga ni dafa ndànk la joor a jàpp fay jaam woo bàyyi xaali jaxate kala ni ko xaali ma jaxate mu ni ko jóob mu ni ko man day tuubi woon naa ca ma ba jaxu kon jullit laa jullit warta lekk alal ju mu génnewul asaka na ñuy génnee asaka mu ni ko juróom-ñeent bu ne fukkeel ba ngay génne mu génne téeméeri jaam jox juróom fukk ba bàyyi xaali ma jaxate kala jox juróom fukk ba Maam Mor booba sëñ Tuubaa fajar day génn ci kër gi ngir bañ a lekk njël li ñuy togg ci kër gi ngir booba xam na fi ko maanaam Maam Mor Anta Sali di jële dikk fekk fa gan ya daanni ko ana gan yi lu ñu fi def mu ne ko asakal loolu lu ma la joor jox mu ne ko delloo ko jaam daganul del siwaat fekkaat fa gan ni ko ana gan yi lu ñu fi def mu ne ko asakal la ju la joor jox mu ne ko delloo ko jaam daganul ba muy ñett yoon Sëñ Tuubaa ni ko sama kilifa nga de waane boo bëggee booy faatu sa roogi mel ne déggu la jamoon ñi di ko sekki bu ñu fi ñàkk mukk nga lekk ndax jaam daganul waane booba ñoom li ñu jàppee jaam mooy nga yor sa gétt nag rek jël sa kuy dugal ci biir lu ñu jur yaa moom la neex def loolu lañu jàppe woon jaam yi woon ndaw ba mu ñëw mu ne ko jëlal gan yi boo demee de loolu ma ko lajoor ne ko mu nu ma koo jëfandikoo lajoor boo baay xaalima jaxate ni ko xaalima mu ni ko amu ah ne ko maam war an def na ma loo xam ne day boo ma ci leeralee dara danaa daje moom daje bu ñëpp yi coow ndax man dammeel laa teeñ laa waruma delloo kenn mu di ma delloo ndax jaam daa daganul bàyyi xaalima day xam ne ko ankay ah, jaam dagan na boo amul fas a xare jaam say jaam jënde fas boo amul njël jaal jaay say jaam jënd njël boo amul soxna jaay say jaam takke soxna Lat Joor booba ñoom wula songu maanaam moom Rane Sali ndax boobu mi ngi bàyyi xel moom du Mbàkke daal ko wax ma ñu fi nawle ma laaj leen ba xam ñu yaa ngi li nga wax ak li ñu wax déggoo na mu ne ko wool soñ calaaga ñaan ak suñu ngunjura ñaan keroog daje ba maam Ndiouga Kébé mii bokk na ca mu ne ko bu ñuy daje nag nañu daje alxames njaañ ma kër Njaga Jaañ muy sa njaañom njaga ndax sa njaga jaaña ñu daqa jàngate am naa xam-xam bu newul ciy téere mooy tax ba léegi marsa njaañ alxames la ba ñu dem maam Mor Anta Sali di dem sëñ Tuubaa ni ko kaay ma gunge la gunge ko ba ci at siddeem mu toog fa ak ñaari taalibe maam Mor Anta Sali dem bi mu demee mi ngi fekk la jor toog ci diggu buul bi maanaam sedd sëriñ si wër ko ceddo kenn ku na yor fetal jàkkaarloog benn sëriñ ñu ni ko nag maam Mor Anta Sali lii nga def lu tax nga def ko mu ni Mamadou Saam moom moo ne ma jaam daganul te Mamadou doo merantoog moom docteur monsieur le ministre bismillah séddal nañu ko Seck monsieur Mamadou Seck président wu téere yi mi ngi nii di kenn ci artisanal di kenn ci artisanat jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf waaw kon nag monsieur le ministre bëgguñu laa téye waaw waaw bëggu bëgguñu laa téye waaye na nga xam ni ñi nga xamante ni ñooy dëkkandoo yi fii environnement bi ñii ñëpp kenn ku ci nekk def na ci bis bii lu kawe sunu njort dégtaloon nañ ko président boo dikkee dañ la ko dégtal ba nga xam ne sa njaboot gi ñii war nañ ko xam nga ne woon naa leen léegi yéen waa artisanat ñu matam a moytu ngeen ca na ngeen bàyyi seen bopp seen xel booba maa ngi doon wax ci président mii ak si sëriñ Cheikh Lo ak ci président mii tey nag gën naa yokk waat ndax seen ministre ngi toog kon waru leen a defate leen loo naan accam lu ngeen jublu waa ngeen jëm ca baa ngeen bëgg ko war naa doon lu rëy waaw waaw dégg ngeen ko kon nag lépp lu ngeen di jublu ni ngeen ci bàyyi xel ñii ba fu nu ñuy dégg baa ñu ñu fay gis mu doon lu gisu doon lu déggu seen xol yi sedd fu ñu toll lu nu bëgg ñu defal ni ko monsieur le ministre nag président waxul dara waaye noonu day ci sëriñ bi lañ nekk waaye noo ngi nii artisanat ngi nii lépp lu artisan yi soxla rek nag soxla nañ ko te yaakaar nañ la ci yaag sa président bii yàlla na la ko yàlla defal ci defal na ko waaye mbokki koñ bi yëpp góor ñeeg jigéen ñi mag ndaw ñi biir artisanat góor jigéen mag ndaw kenn desul ñëpp taxaw nañu taxawaay bu rafet lii moom dooley koñ bi la ak dooley président mi ak sa doole moo taxaw nii kat kon noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm. am solo boole ci yëkkatiwaat sa kàddu ñëw yëkkatiwaat sa tànk ñëw teew ah ci biir teewaay bi nag danga fi fekk ab autorité boo xam ne bii dafa bokk ci ñun muy président Ibrahima Ndiaye mi toog. il président du tribunal régional nekk na ko fii nekk na président cour d'appel tey mu ngi Dakar waaye lu xew ci village artisanal bi mu ñëw teew <laughs> ah aji may mun a sàmb mooy egsi noonu sunu sœur ah, di kilifa tam ci artisanal bi ñu xamee ko noonu daam introduire ko mu dugg si ñu koy sant bu baax ci teewaay bi da ci tombeek juste may introduire monsieur le ministre te xam naa ni dafa war a gàtt lool ndax yitteem waaye ministre ah lii incha allahu dañoo ñaan yàlla nga inauguré ko ndax village artisanal bii nga gis nii boo ko xoolee te mos fi ñëw xam ni am na ay soppiku ñu ngi en plein chantier di ko yeesalaat te loolu yëpp yàlla jaarale ko ci sa baat yow loolu yëpp tey yàlla jaarale ko ci sa initiative bu rafet kon baax na bala ñu lay jox sa micro ñu wax la ni la village bi la nga ci dogaloon yéene ko ci waxtaane ko conseil département ñun ñëpp ñu ne ci sa ginnaaw ñu ngi koy réaliser ah, ñu ngi lay ñaanal nga fekkee cottitali en même temps nga teew fii ak sa yeneen nawle ngeen ngeen inauguré ko incha allah ak yeneen yi ci aju yëpp di la wax nag ni sëndam lu woo bis bi waaye waa village bi itam commencé ci ñi nga xam ni ñoo ŋànk béréb bi muy monsieur Birama Kumaare Mamor Thiam xam naa bëgguma lim day xaw a jafe mais ak ñi seen entourage ñi leen wër ñépp sax ak xale yu ndaw yi nekk ci seen suuf taxawal nañu bis bi tey jii defe naa ni bis bi yéggi na beneen échelon boo xam ni daawu fa àgg. daanoon ci am nag liñ ci daan wut ndax sëriñ Touba lañ ciy wut ak yàlla suñu borom ak yonent bi ah bu nu doonoon ñett sax bu nu ko wootee dinañ ci am liñ ci bëgg waaye nag bu fekkee ni dañ koy def at mu nekk mu gën a soppiku ba ren nga ñëw taaral ko en tant que ministre de l'artisanat nga xam ni tey artisanat bi kenn jéppiwu la ci ñëpp ñu ngi lay sant ñëpp ñu ngi lay gërëm lii nga nu defal barki démb union nationale des chambres de métiers di Sénégal ñëw fii réunion fi nga bàyyi sa yitte yëpp yor yitte ju jomp muy samedi nga déplacé ñëw toog ci sunu wet kon loolu dañ la koy sante waaye di ko gaaral ñii nga xam ni tey ñëw nga fekk si leen kon loolu ma di la xamal ni kilifa gi ji bi ku taqoo ak village artisanal la muy Serigne Cheikh Lo mii ku taqoo ak village artisanal la kuy gindi village artisanal bi ba am fi ay taalu bi léegi kon ñu ngi koy ñaanal moom itam yàlla gën koo yàggal ci ñëw gi fii mais président Ibrahima Ndiaye mi itam aussi nañu xam ni moom it ku takkook village artisanal bi la ku fi faral di ñëw la kuy déglu soxla artisanal la ci ci mission bi ko yàlla jox kon président ñu ngi lay yow it ndokkeel bu baax di ko si gaaral ministre bi aju may mun a yàlla yàlla gën a yokk sa wér gën la may kartan parce que yow moom kartan képp moo la jik ak wér <laughs> ak gudd fan parce que koo xam ni doo toog doo tàyyi doo sonn vraiment ñu ngi lay souhaiter bu baax wér ak gudd fonn ak tal ah monsieur ministre xam naa ni li ci des dama koy bàyyiwaat ñun dañu defoon ci parrain yi waaye yow boo xasee doon parrain ñun da ñun yow la gunge waaw ndax yaay suñu kilifa te mate nga ko sëkk kon nag dañ lay daal di bàyyi nga wax waxaale kon monsieur le ministre di gërëm nag sa staff bii nga xam ni tam lu bari dinañ faral di jaare ci ñoom di ñëw ci ñun wala muy jaare ci ñoom di ñëw ci ñun donte la sax man maay kilifa gi waaye loolu dafay mën a nekk dafay jaaru tam aussi nit ku nekk da ngay am ay say chargé de mission kon ñu ngi gërëm bu baax Ibrahima Birama Kumaare moomu ak Cheikh Pape Cheikh Diagne ak ñeneen ñi nga xam ni tam ñoom ñoo nekk ci wet gi ba ci daam mi daam tam aussi mu ngi defar lu rafet mu ngi yombal tam aussi ci barab bi ñoom ñëpp dañu fas yéene booloo nekk benn taxaw sur pour l'intérêt général fexe ba village bi gën ci village yi fexe ba artisanat Thiès gën ci artisanat yi kon loolu laa lay yëgal nga xam ko nga xamee ko noonu ma di la jox kàddu gi nag di ñaan tam aussi lépp lu ñu dëgmal ci kanam lu mu mën a doon yàlla na li suñu borom jox ndam waaw ah, loolu moom ñu koy ñaan te ci fi du tànqam lu dara soo ma dem ci dëkk bi ñu fay def lu rafet fekk naa ko fa waaye nag loolu lu ñu mën a nangu la ci moom ndax ay waajuram ñoo ko ci jiitu woon di nuyutam président sëy mi nga xamal ne tam fii mu toog nii mantam la toogaloon parce que su ma ñëwuloon moom mu ne fi rek mel na ni maa fi di nuyu président Ibrahima Ndiaye ci taxawaayam ak conseil yi nga xam ne mi ngi leen koy jox pour ngeen dem di nuyu mbooleem kilifa yi ñu fi fekk sëñ Alpha Ndiaye Dabaye di ko jox wàccuwaayam di nuyu sunu jigéen sunu xarit sunu soppee soxna may a Sàmb taxawaayam ci artisanat ñëpp ràññee nañ ko di sant ñoom kumaare su ma ko santee rek sant naa ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ne fii ci artisanat euh, Olof Njaay dafa ne nit ki soo xamul num noo koy def nu la def a tax fii ma nekk nii dama ne ci yoon yàlla dafa def ñu war a dem Kaffrine waaye mënuma woon a bañ a ñëw même su dee une minute ngeen gis ma ma yëkkati samay loxo wàcc sax dem loolu moo tax ma ñëw nii su doon sama sago nag dinaa am jot bu gën a yaatu ñu gën a toog fekke lépp ndax maa ngi fekke léegi rek waaye jàng yi ma fi jàng dégg muy jàng yu am solo di leen fàttali ak di leen delloo ci sunu boroom te loolu lépp mooy li sëñ Touba woote doole delloo nit ñi ci seen borom te safar gi dafay li nga xamante ne day waajal bés bu mag bi nga xamante ne mooy màggal te sëñ tubaa da koo digle woon ku ci ne nga daal di koy liggéey waaye léegi nit ñi dañ cee xër ba du xaar sax màggal ga waaye safar gi sax ñu ngi ciy jóg muy lu ci am solo ndaxte soo ko xoolee nit ñi su ñuy dem màggal ku ne ci sa këri mbokk nga jëm waaye suñuy ñuy safar ñi bokk ëtt bi dañ fiy fekk kon gii màggal gu ndaw la ndax yéen su saf màggal jotee kenn du ci dajeeg moromam kon tey bés la boo xamee ne da ngeen dajawaat fàttaliku sëñ Touba fàttaliku ay ñaanam ak ay jaar-jaaram yàlla na nag safar gi nekk ak saafara si bépp mbébét boo xamante ne am ngeen ko fii ñun ñëpp ñu am ko yàlla dëkk bi def am jàmm yàlla na dëkk bi liñ ciy séenu ci ay wërsëg ak i teraanga yëpp yàlla na ko fi am ndax am na ñu ko fi liggéey yegg si na ba suñuy loxo nañ góorgóorlu ba puso bi du réer suñuy loxo ci loolu laa doon wax ci lu gàtt rek di sant leen ñëpp di sant bu baax président di sant ñi ngi fi toog yëpp di leen ñaanal yàlla ñu yàlla yóbbu ci màggal gi ak jàmm suñu yeggee ci màggal gi tamit yàlla lañ fa lu luñ fa mënti ñaan ak luñ fa mënti def ci ibaadaat yàlla daal di ñu koy fay yàlla ñu yàlla taxaw loolu laa doon wax dinay ñëw damay jéggalu nag wax ba pare daal di dem ndax dafa am fu ma jëm fu ñu may xaar te foofu xaw na xëcc tuuti loolu moo tax su doon loolu dinaa bëgg toog lu yàgg gën a yàgg gën a saafonteeg yéen li ngeen di waxtaan ndax waxtaan ji ma déglu nii rek waxtaan ju am solo la su doon sama sogo dinaa fekkee gépp waaye nag yàlla moo ko def mu incha allah yàlla nañu yàlla taxaw asalaamualeykum rahmatullah taala wa taxawaayam ci dëkk bi di Thiès toogul bay ministre rek di doo a dëkk bi nit la koo xamee ni. maanaam ku ku ku jàppale waa Thiès la ku leen di taxawu ci lépp lu ma lu mas a lu mas a am rek man ba may xam docteur Ndiaye ak tey jii lee mu yàgg booba euh, sunu penc may di looyeen suñ masaan def guddi sëñ Bayloo su dikkee rek ñu yëg ni ñëw na enveloppe yu enveloppe yu mag la fay indi booba nekkul ministre cabinet bi mu yor fii ci Thiès kilifa gu ne dem na fa te boo fa demee jàpp ndal rek la lay defal moo xam yow lay doon wala sa njaboot kon jàppale googu muy jàppale doomu aadama yi bi ñëpp déggee ne def nañ ko ministre dafa mel ne waa Thiès gépp lañ ko defal ndax taxawaayam ci dëkk bi noo ngi ñaan ah yàlla guddal sa fan barkeel sa liggéey yokku la saaxir nu baati nan kon noo ngi ñaan barab bii nga xam yaa ko yilif ak yu mel ne moom yàlla def yokkute saaxiran nu baati nan ci mag sëñ Tuubaa jërëjëf loolu rek laa bëggoon wax wax jërëjëf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 في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبص والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه تفضل علي ربي الوزان فيك وفي خير الورى نور النزال هديتني يا خيرات الخلوات أنجز للوعد بأفضل المال فضلا إلى الجنان يرفع كل بن بالعدنان بركة الشديق والفارق جامعة المجموع والمفروخ أكرم رب العالمين الشطين في الدارين ضبت سخافة النبي الأخيار عليهم الردوان مجرى الأدخيار نفى اللعين من له الخيزوم مع العدا فجندهم معظوم رفع أول بدر الإسلام وذاذوا الفجار والظلام بما يسوء الخناس سر من له الألم حناس بان لنا توحيد والفقه معا تشوف بمن عدانا خمعا هدية الله الودود سمد أبا الخيات بالنبي محمد هدية الله الودود سمد أبنا بقية الله الوجود سمدي أبا الخيات بالنبي محمد هروا بردوانا من قربة من دلالة عراج والخم يا الله عدالة الأزلال والمسخ والخسيس من خافي الله وكل دين مجنون من خلة مراد ثم الجثامين وساني الله yàlla na ko yàlla jotale su ñaan ba ak mboolem dawlu booy dawlu yépp yàlla dool ñu jàmm ñun ñi fi nekk xéewal ak sutura amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin sëriñ Alpha mi nga xam ni tam moo egg si léegi nga xam ni tey moom it wasiila la ci ñun ndax suñu wayjur bi nga xam moo ñu yar ñoom ñooy seen wasiila muy waa kër Cheikh Mor Ndiaye Dabaye ah, rawatina sëñ Alpha mi nga xam ni moo dese seen lépp njaboot gi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar xam naa mu ngay daw joxe ji waxtu bi ah di nuyuwaat bu baax sañ Cheikh di nuyu nag waa centre artisanal waaye di nuyu madame la présidente Adji Maimouna Samb ci teewaay bi nga xam ni tam teew na ko ñu ciy bëgg lool wax dëgg yàlla. di ñaan tam aussi sa rakk bi nga xam ni tam daf la dëddu ah yàlla na ko yàlla jégal te yàlla taam ci barkeem te yàlla wuutu la ci wetam ah léegi man damay sant yàlla bu baax di sant ñëpp ñi nga xam ni ñoo nekk ci village artisanal bi di ko commencé ci ndaw ñu sax mën naa leen jëkk sant sant seeni mag ba pare sant seeni wayjur ndax loolu mooy li nga xam ni moo ma war ah man itam ma bokk ci yéen nu bokk lii war koo doxe war koo jooxe ah moom nekk loo xam ne itam ngeen jox ma ci wàccuwaay bu mag def ma presque parrain wu xew-xew bi def ko sunu ministre tutel docteur Pape Amadou Ndiaye ma wax ni buñ ko ko xasee def ñun dañuy nekk ci ginnaawam loolu la protocole laaj mais na ngeen xam ni kat sant nañu leen bu baax a baax a baax ci lii ngeen taxawal waaye les force vive yi nga xam ni ñoo nekk ci biir village artisanal bi ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu seen unité seen bennoo ak seenu jàppoo di ñaan tam village artisanal bi yàlla na fi su yàlla suy ay xéewalam di leen wax ni village bi dafa am taarix ba tax na lu nu fi sumb lu nu fi jéem lu baax lu mu néew néew rekk yàlla mën nañ ci dimbali ndax ay nit ñu yiw ñu baax ñoo fi ñoo ko sanc tey dem nañu bàyyi ñu fi te seenu njaboot rek ñoo fi des bu ko defee nag lu mel noonu fii ay kilifa ñoo fi moo ko defee li ngànk village muy murit ak tijaan ak xaadir ak keneen ku mu mën a doon tey wuyu ci lislaam vraiment ñooñu ñoo sañ ci village bii amuñu xëj ak seen ci seen biir sëriñ si ñu ngi sàkku ñuy tuddoo lislaam ñun ñëpp ba tax na tuddoo nañu lislaam ñun ñëpp di wax ni nag ànd bi nga xam ni ànd nañ ko ak unité bi nga xam ni nemmeeku naa ko ci biir village artisanal bi te ku nekk joxe ci sa kam kartan bépp tëdd fiil bu mën a doon muy présidente mi muy keneen ku mën a doon joxe nga sa xalaat joxe nga sa wax ci village artisanal bi ñëpp nekk benn bu ko defee loolu ci la barke nekk ci la wërsëg nekk tambuus kon nag loolu moo ñu fi dajale wut barke ak wut wërsëg kon loolu ci loolu la nekk ci maanaam bennoo ak jàmmoo ci loolu la loolu la loolu la ñuy xaar village bi yàlla dogal na maa ngi sant ñëpp nag commencé ko ci président Dame mi toog ak Kumaare ñeneen ñi nga xam ni ñëpp ñëpp ñëpp ak xale yi mag mën naa ci tudd sang bu ma ko tuddee rek mën naa tudd ñëpp ñoom ñëpp ay xale lañu yoo xam ni ñoom ñëpp tey ñu ngi taxaw temm pour fas yéene yenu village bi téye ak seeni loxo te loolu tam dañ leen ci dimbali dañ leen ci jàppale. service bi ma àndal nag muy le secrétaire général ak le chef service répertoire ah ñu ngi fii toog waaye xam ngeen ni tey day altine ñëpp ñoo laxasu ci wàllu liggéey. waaye lii mënuñ koo def ñu toog fee dañuy ñëw ànd kook yéen sëñ Cheikh ah, na nga xam ni ñun ñii de ñu lay dollee sant bu baax di la ñaanal yàlla yàlla yàggal la ci suñ kanam ndax danga ñu bàyyiwul benn yoon depuis que ñu xamante man de 2003 bi ñu xamante à travers jibi mi ak tey bàyyi woonu benn yoon te léegi loolu yëpp dafa wone ni ñun. boo nu jàppee war nga noo jàpp boo nu jàppul war nga noo ndax nun sa alal lanu alalu Seex Ibra Fall lanu te wax dëgg yàlla yow itam alalu Seex Ibra nga waaye nag da ngaa bokk ci jëwriñ yi waaw su ko defee ñu ngi lay jox wàccuwaay boobu bu baax a baax di ko fedd li di wax ni rek loolu mooy ànd li nga xam ne nag borom yoon wi santaane na ko mooy li ma doon wax léegi borom yoon wi moom nee na murit amul sañ-sañu diingat képp koo xam ni da nga nas aw yoon jëme ko ci suñu borom loolu la wax muy Cheikh Mohamed Tijani muy imam Salsaliou muy Abdul Xaadir Zeylani ba ci ñeneen ñu dul ñoom waaw ba limaale boppam sax ni iskulum xatta àll tawaab bi waaw kon loolu mooy di jëkk ci liy baasu ñun ñi ñu nekk benn mooy ñooñu ñu benn la leen xam ni ñooñu ñooy suñu yaakaar tey ñooy suñu yaakaar ëllëg waaw bu ko defee léegi ñi nga xam ni tam ñoo fi nekk di ay ndaw ñu xam ni ay tuut tànk lañu nekk si ginnaaw mag ñi mag ñi tam nekk ci seen kanam ah li ko sëñ bi sëñ bi waxee rek ndaw ñi yërëm topp ji mag ñi mag ñi tam yërëm ndaw ñi voilà ñun nag service bi service la boo xam bi dafa nekk service dafa yore vocation régionale raison la jiite raison lañ jiite ah waaye lu nu mën a jomb di ko wis ci village bi di ko séddale ci réunion bi région bi vi wàllu village bi daf ciy bokk loolu moom lu ñuy fos yéene la te leen ko xamal te di leen xamal ni leen rek lañ leen laaj mooy jàmm ak salaam ak ngeen fexe ba seen place yi ngeen gën ko wormaal ngeen gën ko yokk gën ko taxawu gën cee jàpp gën cee mooy te yaakaar ko te xam ni lépp loo xam ne yaa ngi koy ñun ñi népp fii lañ jaar ba tey sant suñu borom ci xeebu ñeewuñu kenn suñu mag ñi nga xam ñoo fi jóg fii ay milliardaires jóge nañ fi ñoo xam ni ci lii ngeen nekk rek lañ nekkoon di liggéey parce que bu ñu waxee El Hadj Ndiame place am a ngi woon nii Cheikh kër place bu Baye ma ngi woon nii mu nekkaat place am en temps ak ñeneen ak ñeneen boo demee ci répertoire de métier bi carte professionnelle mbay Guèye EMC mu nga fa. tey bu ñu waxee man mii maa ko foto ñu defaral ko carte en 91 tey mu ngi noonu tey doon kilifa nekk industrie waaw kon kenn ku ci ne loo yor war nga ko mën a gëm yaakaar ko te sellal ca jàpp ni kon loo ci yaakaar war nga ko ci mën a am loo ci bëgg war nga ko ci mën a am ah man nag tey maa ngi nii nekk njiit boo xam bi yor naa responsabilité boo xam bi tey ab diplôme joxuma ko euh, bari wax joxuma ko xam-xam bi ak métier bi rek moo ma ko jox kon loolu nga xam ni kon kenn ku ci nekk loo yor boo ko sellalee yàlla mën na la si dimbali kon nag loolu mooy li nga xam maa ngi leen si ñaax ah di wane suñu disponibilité ci seen wet di ñaan tam yàlla may ñu lii ñu def ren ñu teewaat fi déwén defaat ko te ñi nga xam ne tam ñoom ñooy tagg yonent bi sallallahu alayhi yàlla gën leen bàyyi seen ak seen xel gën leen may kàttan eh, li ci dollikuwaat mooy sëñ Mor Talla Pène mu ngi leen di nuyu ndax wax naa man sànq ci yoor ni ma lii bu parce que dama ko doon woo di ci waxtaan ak moom mu ni ma bu ma ko teeloonu yëg day damay damay ñëw taxawee ko ndax loolu moom maa ko war a taxawee ku kuñ koy ku koy defit man nga koy defal waaye nag yël naaw yoon waaye boo demee na nga leen jot li sama message te xamal leen ni fos naa yéene lii di ci bokk di ko teewe kon loolu sañ moor mi ngi leen koy jot li kon nag loolu laa amoon ci lu may wax di leen jéggulu di wone ni nag xam naa ni bu ci lii rek damay jéem a rëcc dellu delluwaat ci liggéey bi bu ko defee rek ngeen nekkal ñu fi ah sëñ ji yow ñu ngi ñaan yàlla bu baax bàyyi la ci suñ kanam ñun ñëpp ñun ñi sant sëy sax rawatina ñu ngi ñaan suñ boroom bàyyi la ci suñ kanam gën a dëgëral sa taxawaay ndax taxawaay kilifa la ci chambre de métier ah xam naa ni sax bu ma demoon bàyyi ko fi it day mel ni demul moo fi bàyyee may mun a day mel ni demul waaye nañu xam ni président euh, président Seck bokk na ci njabootu artisanat bokk na ci kilifa yi en même temps mu ngi dundal tam lépp xew-xew boo xam ne artisan yaa ngi koy def mu ngi ciy def loxoom pour di ko jëmmal bu ko defee nag président loolu tam ñu ngi la ci sant bu baax a baax di nuyu sëñ Moustapha Amar mi nga xam moo egg si léegi sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di la ndokkeel di ñaan yàlla gën a bàyyi yow itam ku régulier nga ci xew-xew bi ah tey nag xew-xew bi àllaa daw me na trop waaye na nga xam ne yow it ku ci régulier nga wax dëgg yàlla ñu lay ñaanal bu baax di la jox sa wàccuwaay kon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillah wa salaam màggalu Serigne Touba gi di séentu màggal Serigne Touba gi ni Serigne waxoon rek bu weer wi dee ñëw mu ni santale leen ma yàlla ci weer wi ñuy teeru ko pour si weeru safar wi ñu ñëw fii ci village artisanal bu cees fekk fi mbokk taalibe yi ñu fi ne di liggéey ñëpp mbokk taalibe yi am di jàmm yeeg soppe yëpp ñëw fi ci waañ wi man may jëwriñu waañ wi kat ñu yëkkati ko teg ko sama loxo waaw man taalibe bu xeebu bii ah! laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah auzu billaahi mina seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba barke maam Seeraay Fall di ñaanal sëriñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sëriñ Amdi Fall Modou Mbène mu yàgg fi loolu te wér waaw ñoo ngi leen di bu baax a baax a baax ndax maanaam bis bi képp ku dugg si barab bi rek xam na ne mbir mi yokku na te nag mbir buy dox day yokk wante am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax sant nañ bu baax a baax a baax ñëpp ñoo ànd bokk ndey bokk bàyyi ànd jàpp si liggéey bi liggéey bi rafet na trop ñooy jugandoo ñooy xàccandoo ñooy dóorandoo kon lii ak tawféex la liggéey Serigne Touba nag yombut kenn du liggéey Serigne Touba du dellu ginnaaw mbirum nu Touba bëri ko buñ teg si mbartal la puus mu dem puus mu dem kon ñoo ngi ñaan dooley maam Cheikh Ibrahima Fall bu déwénee li ngeen man ren bu déwénee yàlla ngeen man lu ko raw si dooley maam Mouridina. Serigne Touba moom lu ñu am rek moo ñu ko gënal. amuñu leen lu Serigne Touba fu mu ñu woo ñu wuy ñu. waaw sama jëkkër ji jàmbaar la. wax dëgg yàlla. Mm. depp boobu ba neen toog toogu leen taxawu leen wax dëgg yàlla yéen a ngi ci def li ngeen mën. li ma leen di ñaanal daal bu déwénee li ngeen mën ren yàlla ngeen ko gën a mën déwén. bu soobee yàlla Serigne amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am amul tànk ginnaaw. li ko waral ci Mamor Thiam la jaare gën koo xam ci aar mu bokk ci kër gi buñ teewee fii ci bis bi amaana ci jëmmam la jaare waaye teewaay fii itam ci ndigalu sëriñ bi ndax sëriñ bi mooy léppam suñ Cheikh Lo kumba it ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ci kàddu yu rafet yi mu fi yëkkati léegi seere ko jëmale ko ci suñ jëmm ñu dëkk fële ci looyeen di nuyu mboolem ñi fi nekk ñëpp rek ñoo xam ñuy waxtaanee sëriñ bi ak mboolem jàngkatu xasida yi fi nekk di leen safoo bu baax a baax itam kàddu yu sant la rek ak soññe yu gàtt jëmale ci mbokki taalibe jëm ci ay mbokki taalibe ndax nit buñ ne ko yaa fi teewal sëriñ benn kàddu la sax nit ñi danañ ko xaar mu bawoo ci moom muy soññante ndax sëñ bi ci loolu rek la nekkoon dana wax ni jamono bu nekk temps amul saa bu ko nit ki di jëfandikoo temps moom na koy jëfandikoo ci lu ko amal njariñ gox ci bayit bi ni waalam bi na waxta shaxsin min aiz fi asiyaihi fa asghi lanhu bil aiz da nga xam waxtu lu lu précieux la lu seer la bu ko nit ki di dépensé na ko dépensé ci lu ko amal njariñ te jotaay yu mel nii bu ñu fi dajee baax nañu soññantewaat ñu gën a xam dëggi-dëggi sëriñ bi woote bi li ko taxoon a jug muy jëlee nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer ni ko alxuraan di waxe waxee wal takun minkum ummatan yad'uuna ila al xayri ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar wa ulaika humul muflihun am na nekk ci yéen ñoo xam ni dañuy woo nit ñi ci leer di leen jële ci lëndëm te ñooñu ñooy way texe yi kon wooteb sëriñ bi ci loolu la jóge ndax nee na adon ilal ilaahi bi sunnati lati hadat nii la kulla wal xalbu xaashian maanaam damay woote wuññi naa ñi ñëpp ñun ko du foo leen jëm mun leen ci yoonu yàlla foo ko teg mun leen ci sunna Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam kon moom loolu ci loolu képp la nekk mu am ne loolu ci mbindeef yi li mu ko ñaanee tukkeem bi gudd na lool waaye la mu ci jëlee mooy la may ñaan illaa ijaal rujuu'i ilaa xawmi shahaadatana wal takfinaa yawma jamil xalqi niiraana am na nga def sama ñibbi gii di taxew sama xeet te nga fegal leen ci sawar dam ko waxee ci olofal ba sax Musaa Ka wax ni lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sowu jant fépp mel ni làmbaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ne yàlla may chafion kull jiili maay ràmm xadmu bi an niiraani maay xaadimu rasul fii suudaani kon loolu moo ko taxaw nu muy ràmmu xeetam ndax suñu borom moo ko wax ni mu ni araada an sababu xaybati an allaaha araada an anaalu minhu jaaha xaw mi akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman kon li ko taxaw nu jóg mooy ràmmu xeetam suñu borom namm ci moom mu am ci moom daraja yenn saa sallam it sàkku ci boromam ni ko kii na nekk sama liggéeykat ndax sammaytani xataan bi abdika alxadim yaa man yaqudu lii busaaratan tudd yaa ma tuddee bu wér liggéeykat yonent bi saa sallam suñu borom moo ko tuddee kon waxul rek ni man may xaadimu rasul waaye suñu borom moo ko jël tuddee ko xaadimu rasul ñi koy tuddoo bari na lool waaye suñu borom moom jagle jooju moom la ko jox ba tax mu jël avocat boo xam ni day layal mbindeef yëpp ñu koy ñaan ci xasida Matlabu Chifa yi ni ñu siiwee ñi koy jàngee noonu tam bari na waaye ma nga tàmbale ci wa najjihim wa aafihim wal tuf bihim wala tuwaaxisum bi kasri zanbihim fa innahum wa in asawka ya ahad li gaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdaanuhum la taqdiru ala balaayka li donfin yazharu xulubuhum laysa tamilu abada ila siwaaka min huna summa gada waaye nag lakinnama talasusul jawaarix abdaahum li ahbahil qabaixi fala tuwaaxisum bi ma la yanxus wala hum hablillasi la yanfanku gis nga na nga leen jéggal na leen yërëm saa buñ la moyee ci ak sàggante rek lañ ko def ndax yaa leen bind ci suuf te seen cër yi saa su nekk ci safaan lañuy dem kon yërmande ji nga denc nga xam ne boo ko dencee du la wàññi dara yëkkati ko nga may leen ko muy ngi jéggal leen kon bi foofu la jaar ak mbindee fi mooy taxaw layal leen ñoom ñëpp kon nañ ko delloo njukkal sant ko bu baax a baax 18 safar li ko tax a jug mooy sëriñ bi dañ koy sant la boromam waaye murid bu weer bi teroo bis yu mel ni da ciy baax mooy ci première bi ba 18 kenn ku ne dangay jug ngir sant suñ Tuubaa waaye bu ñu demee dañuy sant gunge ko ba bis ba ñëw ñu sant la ko sëriñ ñu sant la ko borom loolu moom mooy li mënti ñàkk kon dañ gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax te képp koo xamante ni taalibi la ca aju na ko leer ni kii aju na ci boromam ndax Sëriñ Tuubaa am na lu mu waxoon ndax ni man talabal wusula lil jalili falyantasim bi sunnati rasuli nen képp ko bëgg àgg ci boroom bi na nga aju wala na nga jàpp ci sunna Yonent bi sallam bi an yulaazima mutian la yamil fi zahirin wa batinin an sabil yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yuraqihi bi tarkil aada da ngay aju ci koo xamante ni benn saa du ko wàcc sunna si yonent bi sallam kon na ngeen aju ci kooku waaye dañ ni waman taallaqa bi waasilin wasal waman taallaqa bi aksihin fasal ku aju ci ko àgg da nga àgg waaye ku aju ci ko àgguwul fekk oto bu paan nga teg ci say bagage ni bëgg ngaa dem boo jàppee da ngay demit da ngay nax sa bopp doom kon nee na na nga aju ci ku àgg bu àggee da nga àgg waaye ku fekk ku ajul fenn àggul fenn nga aju ci moom boo jàppee da ngay àgg it da ngay nax sa loolu lu sëriñ bi wax mooy na ngeen ajju seen mbir ci koo xamante ni leer na ni ki àgg na ci diggante ak borom mu nekk koo xamante ni cheikh murabbi bi ñu war a mel di ko sëriñ bi digalee dafa war a nekk koo xamante ni jamono bu nekk ci sunna lay ne ak ci ndigalul borom mooy farata ak sunna du ci wàcc jamono bu nekk bu ngeen jëlee seeni mbir aj ko ci kooku fépp fu ngeen bëgg àgg na ngeen fa àgg kon loolu ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax te xam ni jotaay yu mel nii buñ ci newee li ñuy wax pertement ci dund amu ko nañ gën a yéeneente jàmm ndax jamono jiñ nekk ñaan bi bari na lool soxor bi bari na lool ndax bu demee bi suñ Tuubaa di ko ñaan kon loolu jamono jii la gën a raw ay mbindam day mel ni tey taxoon mu di ko wax dañuy gis nit nekk fi barab jekki saay gis nit raw ko ci alal am yoo xam ne amu ko mu ne asawaay ah, day dóor rek li mu nekk tëgg ko ci dëgg tëgg ko ci yoon te yow boo sañoon foofu mu jaar bay dóore yow mënoo faa jaar kon nañ gën a yéeneente jàmm iñaan amul njariñ soxor amul njariñ kenn ku nekk la suñu borom def ci moom nanga nangu dogal ba mu neex la loolu kat moo lay noppal mooy tax nga am xol bu féex suñ mi ñaan wa kun muizan lana ci xasida sindiidi wa kun muizan lana min charri zi xasadin maa sarri fam min wa sarril ayni wa sarri sixrin wa sarri alxalqi insihimu maa jinnihim wa zawaati summi yàlla maam nag ñu musal ci koo xamante ni dafa ñaan nag ñu musal ci borom làmmiñ boo xam ne dafa aay nag ñu musal ci képp koo xamante ni sax day dem di liggéey nit pour mu pour mu yàqu ndax nit ñi kat toll nañ foo xamante ni buñ jéemee ci yow mënuñu dara wax ci yow mënuñu dara yemuñ ci dañuy jël seen xaalis dem ci sëriñ ne ko diw nañ ko yàq du dem fenn suñ tubaa gis na ñaan na ko am na ñoo xam ne ñu mënee defuñ la ñu war a def mënuñ ko ci shayatin yi la dem ci jinne yi pour jéem a gàllankoor nit ki loolu amul njariñ léeg nit xëy xëy ci palaasam fekk ñu teg fa am nen wala ñu sotti fa saafara bu fa awee yàqu bu faw te koo ku ko lor lor nga njabootam ndax kenn ku nekk yaa ngi njaboota ngi bootu ci sa ginnaaw di yaakaar ci yow dépense yow doomu aadama bi gis nga ni kii raw na la nga ne ah duma ko nangu damaa iñaan bu fekkee yàq nga ko ci ay kàddu mënoo ay mbiram di dem nga ni naa dem cib ñu bëree bëri xëy na Sénégal loolu ñu tardel ñun bokk na ci li ñu tardel bokk bismillah kon ñu nangu ñaan fu waay toll rek di wax amin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin tariqatil muridiyya Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla dolli ko wér sàmmal ko boppam aaral ko boppam dolli suturaal ko ay rakkam ak ñi koy jàppale ci liggéey bi yëpp ak bokki taalibe yëpp ñu ànd ah lu mel ni kii safar gi moo dugg moo duggati muy weeru mbégte weer woo xam ne kenn ci ñi nga xam ne ñu raar lañ ci jamono ci afraad yi benn benn jamono nga xam ne bëriwuñ kenn ci ñoom liggéey ci ba am ci ndam lu rëy li ndam li nga xam ne ndamul lislaam yépp la waaye ndamul waaye ndamul ndamul humanité yépp yëpp la bépp nit rek ndam li sa ndam la ndam li mooy ki nga xam ne dafa demoon ci liggéey bu yàgg te liggéey bi di ko lal bu liggéey pour fayeeku weer comme niñ xamee mafhumu liggéey waaye liggéey bi mooy jële ci ngërëmal yàlla ak am ci contentement wu yàlla liggéey boobu nag sëñ bi ginnaaw bi ci yàlla gërëmee moom la woote pour ñu santale ko borom boobu boroom bi nga xam ne nee na daf koo defal xéewal yoo xam ne moo lott na ci sant ko ndax xéewal dañoo bari bari nag tax na moom mu lott ci sant borom mu woote képp koo xam ne rek jullit nga képp koo xam ne nit nga nga santale ko yàlla ci bis bi bis boobu nag bu teewee. bokki taalibe képp koo xam ne sëriñ bi mbégam sa mbég la ndax noonu la ko waxe génnew ci kenn daf ni képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bu bis bi ñëwatee dee ma ci santale yàlla loolu mooy historique gu màggal kon képp koo xam ne yëg nga cofeel boo amee boo ëmbal Serigne Touba rek te ñëpp a ko yëg bu bis bi jotee da ngay santale Serigne Touba boromam ak noo ko mënee def ndax nee na danaa sant yàlla ci lépp lu dagal maa ngi fas yéenee sant yàlla ci lépp lu dagal loolu moo tax mu digle lu waay mën a xéewal bu ci yàlla mën a def rek ci lu ci wàllu ren bi di ko dalee ci géléem ba ci ginaar bu ci waay xeeb dara waaye bu ci waay naw dara ndax bés la boo xam ne bisu cant la kii cant bi Serigne Touba moom moo xam ni muy santee borom waaye ñu ni tam fukki fan yeeg juróom-ñaar yi ñu koy delloo njukkal moom sëriñ bi sept ans yi mu def ci ci Gabon at yi mu def Mauritanie ak bi mu ñëwee résidence surveillée bi lépp mu ci loxo tubaab waaye teewul mu réussir mbooleem côté ci côté yëpp côté Sëriñ Tuubaa mooy koo xam ne côté boo xool gis ne kuñ ca dimbali la bu dee ci wàllu xam-xam nga gis ne xam-xamam bii du xam kese parce que moo wax ne suñu borom wa taala moo ma jàngal allama allamani llahu alalim mimma yashaau min ulum yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ma jàngalal la ko soob ci ay xam-xam duy ma ko xafistu ma sina an dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri yàlla sol na ci sama dënn bi loo xam ne ci ay xeeti xam-xam boo koy wër ci kàggu yi doo ko gis kon ku ñu dimbali ci wàllu xam-xam la ku ñu dimbali ci wàllu yitte la ndax yitteem ju koy moo ko may nii ndax li i'tikaaf ba mu def ci daal quddus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko fa bëgg koo tappal garaatu qutbu zaman nga xam ni yaa yiif waliw yi ne ko say at mateegu ko waaye yow danañ la ko defal muy faveur ngir sa liggéey bu sell ak sa sellal ak sa dëggu ak bëgg gi nga ma bëgg ak liggéeyal gi nga may liggéeyal ak liggéeyal gi nga may liggéeyal mu nekk ci lool ba am ci gërëmal yàlla ndax ba mu waxee yonent bi salaay sallam yonent bi ne ko loo léegi lan nga bëgg mu ne ko ànd ak ñii ahlu badrin xam si tubaa ahlu badr ndax nee na yàlla ci boppam moo ko def muy kenn ci ñoom yàlla moo ko def muy kenn ci ahlu badr te ahlu badr seen seen daraja dafa rëy parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam bu ñu mosaan koo xam ne dafa teew badr ci saxaaba yi wax ci moom dana ah tey leen ci mbiram kooku innahu min ahli badr dafa bokk ci waa badr sëñ bi jaayante yitte ba àgg fa moom itam tukki tukkeem bi tubaab bi exilé ko teewul mu bind ay xasaay yoo xam ne mëneesu la xam ñaata la toll te tubaab mu ci loxo tubaab bi te teewul taalif na ay téere yoo xam ne mu toll te téere yi dafay séddale ko ay pàcc yii day jëm ci wàllu tagg yonent bi salaay sallam yii jëm ci wàllu julli ci wàllu ci yonent bi salaay sallam yii jëm ci bàkk yàlla subhanahu wa taala yii jëm ci jàngale nit ñi jàngal lan mooy sharia yii di jàngale xaqiqa tasawuf yëpp mu boole ko booleeg di yar mag ñi ak tomb bi mu daan tomb di ci jàngal ñi nga xam ne am na ci ñooñ sëñ Modou Lamine nee na ci irwaawu nadim am na ci ñooñ bi ñuy ñëw ci sëñ bi feeru ñu sax ijji waaye mujj gi kuñ jaxasoon nga jàpp na ñoo raw ci àdduna bi ndax buñ jullee tàkkusaan ba noppi tombam yooyu muy tomb ñu bëri ci la leen jàngal yare leen moo tax sëñ Modou Lamine ci Irwaaw Nadiim xam naa foofu la ñuy daangalee bi mu tuddee dund sëñ bi ak ni ko yàlla matalee dafa mujj wax ne wa bi jumlati fa xayaatu cheikhi fii jurbeel lam tajma lam tajtami fi ma balaganaa min kutubi tawaarixi fi fi xayaati ahadin min kummalil mashaayix القائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة الكل الملك كان مناصرا وأخساق الملك illallah واجعل ريما ريما آمنا وكن بإفسه كفيلا دامنا واجعل ريما ريما آمنا وكن بإفسه كفيلا دامنا واجب لها خير من الجهاد على الشد والفخار وعن الآفات خذني عني سيطان يا جليل ومسكني وكل ما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله قل هو الله أحد الله الصمد الصمد الصمد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 أحمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب الصفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له أبد مع الذي فضله وجهت وجهي له ونيتي إرداءه وهو أجل منيتي أسأله جل بجاه معي لي زاردا وسافرا له أموري زاهرا وباطنا حيث أكون راهلا أو خاتنا لو تخلبي في المباهي بالسكر والذكر وبالرباء سوى من عمام أيقنت بالسفر بالإجابة ثم له أتوب بالإنابة عتى له أتوب من متابي ومن خواتي أن يرد إلى يعتصم العلم والعمل والتأدب والفوز بالحسنى بجاه المجتبى الأولياء جملة ما أطلب من ربي أبلي يا وهاب ما أختار دأبا بمن سمعت المختار خولي لا إله إلا الله ومن هواي خلل المنام يا مالك يا خالق الأنام ومن هواي خلل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك سكرت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام ونجني وأولني المرام من كرم يوم أن أكون من من أبوا لخيرك الركونا ونطيعك بناج المصطفى سنة عبيد يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا خريب عبيدنا هنا خريبا لأبي ساكا ولإخوان الجميع زرادة الدارين حقا يا سمين قبلي في أسعد والإجابة للمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في مخاسمي ولسويد بجاي عاسمي ولك سفر ليلى الغوالب بحرمة المحبوب إبراهيم وليد خير العلال الطيب وخير جيراني بأخ طيبي وسافني بباطني وسائري ولم بي الخرم بأخ تاعري yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi bil Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa yaa rabbi bil Mustafa yaa rabbi مصطفى الماء المماسية خدي العمرة ويف وإسرار فليخرج اليوم من قلب اتباع بجاعي وساتين وقدار أجري القلب ولتدخل غربة ولا قوة صبر أولى ويجبار أتى فارخة طوالت مخابرا تلازم ما يخصى بالعمجار ومن كبر صلاة بسلام على خير الورى بجميع للخار من غار وأن تسوق صلاة بسلام له لا تلازمني في العين أوزار وأن تجر صلاة بسلام له لا تلازم قلبي دار أنوار وأن تجر صلاة بسلام له لا تلازم قلبي من أسرار للا سمني تويدو أبدا مسألة وعدا بن واسكار ونكون على الأعداء متليا حتى الغادة تسرار وخيار حتى الغادة تسرار وخيار أكون شهيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا ربي يا صل على المختار waaye ci la daan def tawassul diggam ak boroomam nga xam ni xasaa it sëñ Tuubaa li mu am lépp ci la ko am fi mu toll tukkeem bii nga xam ni moo waral tey dëkk bi foo tourné teraanga yi ñu ngi la koy sutti yaa ngi gis baasi ci mbedd mi yaa ngi gis rojo yi ñu koy takk safar gi safar gi te tukki boobu li muy metti metti sëñ tubaa wax na sëriñ basiiru ni ko su dee am na lu ma ci amee mooy ngërëmul yàlla lu dolleeku kon looy bëgg a dégg foofu ngërëmul yàlla lu dolleeku la am ci tukki bi waaye lu jiitu muy dem ci tukki bi sëñ tubaa li mu am lépp mi ngi ko amee ci xasaa itam yii moo tax ab taalibe bi am tawféex bu déggee kuy jàng xasaay di mu wàcc lépp lu mu doon def ñëw toog kooku am na tawféex ndax xasaa it day alali sëñ Tuubaa xasaa it mooy loo xam ne sëñ Tuubaa nee na damaa noppi ci moom toog naa mag ñi ci njaareem ni leen ñaara ngi yoo xam ne damaa noppi ci ñoom mag ñi ni ko mbàkke de bu bun amoon ndigal dinañ la laaj nga baaxeñu ko bi ko mag ñi laajee sëñ Tuubaa ni leen sama doomi bopp yi ak xasaayit yi ma bind sama loxol bopp ñaar yi damaa noppi ci ñoom nga xam ni doomi suñ tubaa yi li sëñ tubaa noppi ci ñoom ni nga koy xamee mooy xolo ñi fi jaar ñoom ñëpp ba ci sëñ Saaliw mu ci mujj amul kenn koo xam ni dina jëf nga xeeb ko mu wax nga xeeb xam ñoom ñëpp far di wa sunnan rekk ci la ci lan nekk kon sëñ tubaa daa noppi ci ñoom xasaayid yi tamit suñ tubaa daa noppi ci xasaayid yi ndax xasaayit sëñ tubaa nee na lépp lu ma am maa ko amee ci xasaayit yi tagg gi ma doon tagg yonent bi xéewal yi ma am yépp moo ma ko wommatal matxu rabbi wa mat o xayra muzallim xaada lii jumlatal mu naa gis nga xaada lii jumlatal mu naa la wax mbooleem xéewal yi ma am yépp tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy xasaayit yi moo ma ko wommatal kon sëñ tubaa lu mu am mi ko amee ci xasaayit yi doonoon koo xam ni ku fonkoon xasaay di la ku bëggoon it xasaay di la lan moo ko waral mooy tagg gi mu ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te waxtu wu mu taggee yonent bi ci xasaayit yonent bi defal na ko ci loo xamante ni bu ko taggaatee ci geneen xasaayit la ko yonent bi defoon lii la koy gàcceel moo waral nu ne nu ne tagge na ko yonent bi kon xasaayit ab taalibe da koo war a fonk su yàlla dimbalee nga fer ijji fexeel di jàng xasaayid yi boo ferul ijji dee ko wecceeku sax di ko denc ci barab yu sell di ko di ko di di di ko toppatoo ndax suñ suñ tubaa moom yërmandeem ak xéewalam dafa yaatu am na ku ko wax léegi yaatu gi mooy xasaay di ki koy jàng man koo jàng ak ki ko mënta jàng sax te fonk ko kay jàng te fer ijji tuyaaba ya muy am ka nga xam ni ferul ijji waaye mi ngi fonk xasaayidi di ko wecceeku di ko teg fu sell di ko toppatoo la am ci tuyaaba ka koy jàng di ko yuuxu ka mënta jàng waaye mi ngi toppatoo xasaayidi ñoom ñaar ñoo yam tuyaaba xay su xuri at aw kutibat aw nusirat yow miy jàng ak yow mi ko mën a bind ak yow mi nga xam ni mënoo jàng mënoo bind waaye mën nga koo wecceeku di ubbi parpaas di xool xool ga nga xool te jàngoo kay jàng lan koy fay yow mi ferul ijji tey xool yow loolu ngay am kon nag xasaay di mooy alali murit sëñ Tuubaa lu mu am ci tagg yonent bi la ko amee kon nan gën a fonk xasaay di barab bu ñuy jàng xasaayit bu nu xamoon la fa nekk ci aw yiw boo déggee kuy jàng xasaayit dangay bàyyi sa yitte yépp ñëw ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam de sëñ tubaamoo moo ni li koy bégal mooy sama mbindum loxo waxtu wu ma sàmb Gay toogee dar ay noppam yëkkati xasaayit yi yonent bi day bég suruuran matee yan teq bi mat ya mutrixu loolu mooy jollil ji mooy jànkatu xasaayit bi waxtu wu daree ay noppam di yëkkate xasaayit yi yonent bi day bëgg rasuulu rasuulallah xatti bi mawlidi sëñ tubaa nee na yonent bi li koy bégloo mooy sama mbindum loxo mus naa wax mag ñi moom seexul xadim ni leen ñaar yi jar na sol dàlli weñ ba dàll yi jeex mag ñi ni ko mbàkkee day ñaar yooyu bëgg na noo xam yan la ak seexul fa dara nekk nag da koy dolli bu fekkee foo xam ne dara nekk na fa ba dollee ko bari loolu li nga xam ne moom la ñëpp yi ut moom la fay def muy barke te barke ku ko am am nga lépp kon nag barab bi yàlla na fi yàlla dolli barke tàggatal leen nasaraan si ñuy jóge ci continent yëpp di ñëw te bu ñëwee li ngeen bëgg ngeen am ko ci ñoom ñu ngi koy ñaan ci barke Sëñ Tuubaa di ko ñaan ci barke xasaay di di ñaan ci barke sëñ Tuubaa liggéey bi ñuy liggéey sëñ Tuubaa yàlla nañ daje ngërëmam ndax damay wax ni àdduna li doom aadama gën a bëgg li ko mën a may mooy liggéeyal seexul xadiim kon yow miy liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa fàggul na la sa bëgg sëñ Tuubaa fàggul na la sa bëgg ndax ñaan na boroomam ni ko ñi may liggéeyal fajal seen aajo te bul yem ci faj seen aajo lañ bëgg àdduna ak alaaxira nang leen ko defal kon kuy liggéeyal seexul xadiim yàlla day faj sa aajo waaye du yem ci faj sa aajo la nga bëgg dala koy defal beneen bi ci des kiy liggéey sëñ tubaa ba faatoot sëñ tubaa ñaan na yàlla ni ko ñi nga xam ne danoo màng di ma liggéeyal na nga na nga na nga leen tàbbal ajjana waaye boo leen dee tàbbal àjjana na nga leen dugal ci digg àjjana xam ni palaas fowukaayu àdduna yi rek boo duggoon lu mel ni stade tey fay gën a seer ci stade bi mooy ci digg stade bi moom la ñuy wax loose sëñ tubaa nag nee ki may liggéeyal bu faatoo yàlla na ko daggal ay njënd ci digg àjjana wastal janna diyaarohum wastal janna kon kii liggéey sëñ tubaa bu faatoo sëñ tubaa ñaan na boroomam ni ko ki may liggéeyal waxtu faatoo ay logement waxul benn ay logement la wax diyaar plénière la jëfandikoo foofu ay ay kër yu bëree bëri na ko ko may ci digg àjjana kon liggéey sëñ tubaa daa amum koom sëñ tubaa toog na ci njaareem bis ak mag ñi jékki-jékki ni bërëb mag ñi di ko xool muy dem di dem di dem ba kenn gisatu ko mag ñi ni girim jaaxle ñu am ab diir ñu gisaat jëmmam ju tedd ji di ñëw bi muy ñëw moom seexul xadiim mi ngi yenu benn sayu matt ci boppam bu tedd ba bi mu ñëwee dañu dir say wi daal di yenu yenn ku ko teg ci suuf tekki jël matt yi def ci taal bi daal di taal teg marmet bi ñulug ndox toggal boppam laax boobu mu doon toggal boppam bi mu noppee mu jël daqaar ji jambal boppam xorom ko daawu ko suukal da ko daan xorom daat koy sif ñam ci ñetti baaraamam daat koy jiñ mag sëñ ma sàmba di ko xool rek man ñi danoo amoon orma ci sëñ Touba sëñ Touba xam ni sëñ ma Masamba am na lu mu bëgg a wax mu ni ko Masamba xanaa daa am loo bëgg a laaj mu ni ko a Mbàkke mu ni ko ana lu mu mu ni ko fere yi de danoo jaaxle lool sëñ Touba ni ko Masamba ana lu jaaxal fere yi mu ni ko fere yi li leen jaaxal mooy ñoom de liggéeyal la rek ñoo ñoo ñoo tax ñu toog si sa keppaar gii. waaye li leen jaaxal mooy dañ leen a wàcc fii tey dem di liggéeyal sa bopp te ñoom liggéeyal la rek moo tax ñu toog sëñ tubaa daa di muuñ ni ko ma sàmba mu ni ko mbàkke mu ni ko sama boroom damaa teral ba deseelu ma dara jotaay bi ma toog di waxtaan ak yéen naa Jibril dañu lay ni cëpp sama kanam ne ma Ahmadu ma ni ko mbàkke mu ni ma sa boroom nee na ku la liggéeyal mu faj aajoom sa borom nee na ku la liggéeyal mu faj aajoom ma bëggoon yàlla faj sama aajo nag moo tax ma doon liggéeyal sama bopp xam nga ni kon liggéey sëñ tubaa boo xoolee mag ñi mu àndaloon rek nga xam ne liggéey sëñ tubaa moo am koom tey jii seeni sët rek la ñuy siyaare di leen jox àddee te la ko waral mooy seen maama am ngërëm rek sëñ tubaa nag li mu wuuteeg nitu yàlla yu bari nitu yàlla yi ñi ci ëpp boo leen liggéeyalee sa jëmm la ñuy gërëm te bu jëmm ja tuxoo wala mu faatu wala mu làqu ngërëm la jeex na sëñ tubaa nag moom boo ko liggéeyalee du gërëm sa jëmm xam nga lu muy gërëm sa deret deret ji lay gërëm lu bokk ci deret ji rek sa boroom ka ca gën a ca deret ja mooy gën a yëg ngërëm li sëñ tubaa ngoog baay ji bi boo ko liggéeyalee sa deret lay gërëm deret ji nag bu ko gërëmee lu bokk ci deret ji day yëg ngërëm li xolal mag ñi rek xolal jëmm ji maam Cheikh mu Baabul Muridiina nga xam ni ngërëm li ko sëñ tubaa gërëm ak marale gëm ko maraleeg boroomam moo waral kenn mënut a def dara ci kër sëñ Tuubaa bëgg mu jag te jaaroo ko ci Seex Ibra lépp loo bëgg mu jag ci kër sëñ Tuubaa ci kii nga koy jaare xoolal rek Tuubaa sëñ taxaa bi mu bëggee mu jag xam na ni kenn rek a ko mën a jagal mooy Seex Ibra moo tax mu jox ko ko amul kenn ko mën a jagal Tuubaa fi mu lan fa bëgg ci wàllu sécurité lan fa bëgg ci wàllu ci wàllu sunna nanu bëgg dëkk ba mel ko kenn mënu koo def ko dul Seex Ibra moo tax bi mu xamee loolu moom Seex Muhammadul Muntaqa daa jëlaat nag daa delloo nag mbàtt la ca ndaa la ndax xam na ni moo ko mën a jagal keneen mënu koo jagal fi mu toll coow lu mën a wax ku dul la mënoo teg Tuubaa ci raay bi kon nag yàlla na yàlla fayal nu ko moom Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla yàggal fi suñ Cheikh suñ Modou Menda ñu ñaan bu baax bërëb bi yàlla na yàlla nangu lépp. ak nja njabootam samay soppe lañ samay xarit lañ di ko nuyu bu baax te di ko ziyaare sëñ Basiiru maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare bu baax yaag sëñ Masamba ak sëñ Xaadim Mbooj mii daane léegi moom sunu mag la sunu kilifa la sunu xarit la. moo tax ñu ne ko waxtaanal ba pare boo paree nag fi nga teg sa baaraam rek ñu continuer foofu sëñ Xaasim maa ngi lay siyaare bu baax maa ngi lay bégge bu baax a baax kay xam naa ni jëwriñ damay barkeel lu gàtt rek def ko àddee Serigne Touba sëñ Xaadim wax na ko léegi ki doon waxtaanee sëriñ Touba moo yàq Serigne Touba xoolal waxtaankat yi fi jaar yëpp sëñ Basiiru jenn jëmm la ñuy waxtaanee muy borom Touba te ku ci nekk mën naa bañ a laaleeg sa morom xoolal jëmm ji njëkk waxtaan ci waxtaan wu tege ci xam-xam bi ba ci Serigne Khadim mi te ñëpp benn borom barak bi lañuy waxtaanee Serigne Touba loolu la nga cay déggee mooy ñàkk moroomu Xaadimu Rasul bi Serigne Touba day njariñal jaam ñépp xëy Xaadimu Rasul njariñal jaam ñépp la sëñ Xaadim wax na léegi Tijaan yaa ngi ci biir Xaadir yaa ngi ci biir. laayeen yaa ngi ca biir sëñ Touba daa yaatu ñépp a ci xaj damay faral di wax ni képp kuy xatar rek bokkoo ci sëñ Touba te jàpp naa ne lépp lu sëñ Touba warmaal yow mi ab taalibe war nga koo warmaal ndax sëñ Touba jaar na fépp ndax bëgg lu baax amul kenn ku gën a jege ak mbokk ci réew mi sëriñ Touba ku du Alaaji Maalik Alaaji Maalik moo gën a jege sëriñ Touba ci réew mi ci ak mbokk xam nga nooy jaar mëti Mbàkke mu maam maaram mooy ndey Seydina Ousmane bàyyu Seydil Xaaji Malick si kon moo gën a jige ak mbokk mbokkum lenk la Seydi Xaaji Malick si bëgg sëñ Tuubaa lool sëñ Tuubaa fekk na ko njarnde mu ganale ko ba ngoon jot mu yëkkati kaamil alxuraan jox ko jël xaalis jox ko boole ca ñaari bayit moom Seydil Xaaji Malick si ci baxru basit xam nga lu wax sëñ Tuubaa addiye jii ma la jox dama laa bëgg rek a tax ma jox la ko am cofeel ci yow borom Tuubaa ma bëgg nga ñaan yàlla bu mu cofeel gii bu mu dagg àdduna bu mu dagg àllaaxe ndax dama laa bëgg man Seydil Xaaji Malick Si daan ni cas xalimaam booy ñaari bayit sëriñ Touba tontu ko ñaari bayit ndax dafa orsisé ci baxru basit bi Maodo moo njëkk a wax ni hadiyatun muujibu hajtilaabu maxabatan yaa ayyuhal xubaabu naa lanaa naa xablal wisaal wa kuffanaa saral lazi ada wisaal Serigne Touba tontu ko ñaari bayit ni ko waaye yow Maodo dangaa baax waaye yàlla na la yàlla fay gën gi fay bu mu cofeel gii bul ci sikki sàkk àdduna bul ci sikki sàkk àllaaxira ndax du dagg lan moo tax man sëñ Tuubaa duma la bëgg yow Alaaji Maalik te rasuulullaah ki di sunu kilifa dégg na mu ko waxee jazaakumu xayral jazal wahaabu wa fii safal widaadi laa tartaabu fa kayfa laa wal mustafal mujaabu naa kon wal xat la la naxam xoola gi mbokk sëñ Moussa Ka way ko ni Bamba di Maodo Maodo di Bamba ku leen di féewale xamoo liy wirde ngir mëti mbàkke maam maaram mooy ndeyi Ousmane bàyyi da maa ko xam Maodaa nga yor sariatul mutahara Bàmbaa nga yor xaqiqatul munawara keroog ba alxaaji mu Maalik siiw ma faatoo tiwaawan kookaa di saalik Seex Bàmba daa wóolu siiri anta mu dem jaale ji romb kër buukunta ñaar fukki nag la dàq yët leen téeméeri saako ceeb la boole jox leen boole ca xaalis boo xam ne kenn mënu koo lim kon siidi anta njaay yaay boroomi nag dégg nga ko Sidi Anta Ndiaye yaay borom mi ndam Seydil Xaaji Maalik Si bi ñu ko laajee toog di waxtaanee gaay yàlla yi ci wetam mu ne teg yore kurus waaye bi ñuy tudd gaa ba ak ci sëriñ Touba xam nga lu ma ak a ñàkk iñaan Maodo ne boobu ba tey yéen a ngi tudd gaa ñi ma ni teg waaye bi ngeen ak ci sëriñ Touba faa ma dugal ci kaddu ma bëgg leen a wax ni képp kuy muuru ci àdduna muuru wala nga bàkkaar ba mu des bàyyi sëriñ Saliou Mbacké ñu toogaat ci wetam ni ko si sa mbokk ma tubaab yi yóbbu ci géej gi mu ne ndokk ñu ne ko si dañ cee kontaan mu ne man dama cee kontaan man El Hadj Malick tubaab bi yóbbu gën a yóbbu sëñ Touba ci géej ñu ne ko lu tax ngay kontaan ci mu ne damaa xam ne tubaab bi ku nu yóbbu woon ku dul sëñ Touba du del si ma xam ne moom dem na te dina del si te bu dikkee lislaam am ndam ñëpp am jàmm mën a jàmm yàlla dem na de mu nga ca réew ya ndax Mbàkke Bari la jaar jaar Tunda Jeewal jaar Kokki jaar Louga jaar Ndar jaar Dakar jaar Kabu Camp Central Grand Bassin Cap Libertaire Ndimbal Wali Bouma Bouyama Kongo Belsi Kongo Français Luwanga Endubureke Katana Karambasa Wiir Wiir Gabon Mayomba Cap Lopessa ba ñibbisi la 11 novembre 1902 1903 1902 la ñibbisi moom Serigne Touba la 11 novembre 1902 dem na fi Louga dem fi Ndar bari jàmm Siise juróomi fan ca weeru koor mu dugg Sanusi woor weer ba mu jeex waxee waa sanna bu leen neexee ak bu leen dangeen da ngeen tàbbi àjjana ndax munkir ak nakiir xàmmee nañu leen woor weer ba ba mu jeex mu génn sanuusi dem ñaxal jégg ñaxal dem mbàkke kajoor siyaare sëñ baayam sëñ ibra mbàkke kajoor jóge mbàkke kajoor dem daaru salaam maam seex anta ganale ko mu génnee daaru salaam dem daarul marnaan kërug daaru marnaan gi lak mu yéenee lu ay lal ñu làmb ko jàpp ne ay fetal la jaxasa kook tubaab bi sala waxee yaa jumlatan xat salla suubi dalalihim man lam yakun waladun lahu awwal walidu axrajtumuni naatixiina bi annani abdul ilahi wa inni la mujaahidu ñu génne ko foofu mu dem tukkib jéeri ji dem na gànnaar ñeenti at ñeenti dëkk xumaak sarsaara sahwatul ma biirul xayri 1907 mu ñëw Thiéyène Jolof résidence surveillée 5 ans 1912 mu ñëw Njaareem résidence surveillée 15 ans raamu masiri ila jurbel la daal l'assasine law aayanu sirra ma fi sayri ma raamu saykul xadima ngox kon dem na waaye dina dellu si bàyyu sëriñ sa mag ñëpp nangul sëriñ Touba moo tax maam Seera daan wax ni ah nit a ngi xëy lekk jën te xamul mool bi ko jàpp nit a ngi lekk teraangay sëñ Touba ba pare déddee ngeen xaadim rasul moo tax Cheikh Mor Ndiaye daa bàyyi maami sëñ alfa Ndiaye daa bàyyi kooko dàq kennal sëriñ Touba sëñ Mor Ndiaye daa bàyyi moo dàq kennal borom Touba ca xam-xam ba te sàmba ginnaaw Serigne Touba yoonu murit barke borom Touba Cheikh Mor Ndiaye Dabaye rek a ci am loo xam ne kurul Sëñ Touba amoo ko xam nga mooy la wirdu boppam xusnu taqrib borom aynu naim Cheikh Mor Ndiaye Dabaye xam nga lu wax Serigne Touba jërëjëf xam nga Cheikh Mor Ndiaye lu wax Serigne Touba laysa yuraamu misluhu dee na jamono ci boppam moo bañ kuy ndurale Serigne Touba kenn ñu ne ko njaay lu tax mu ne ya ba zamanu sibaku jamono moo bañ kuy nduróole Serigne Touba kenn njaay lu tax mu ne rabbul wara xadamaku yàlla jiital borom Touba ca kanam ala xiyaaril umami mboolem tànnee kuréeli seeni njiit bu ñu taxawee bàyyi Serigne Salim Mbacké mooy nekk ca kanam njaay ki ngay wax mooy kan gaa bu ñuy ñaan alal lañuy ñaan alal ak ak i doom ak i xéewal lañu waaye dégg seen Moon Njaay bi muy ñaan dañu man bëgguma dara naay gën a bëgg Serigne Touba képp la naa ba xubba ba wa kullu man xat sibaa yow yàlla yàlla na nga ñu askanale bëgg sëriñ Tuubaa ak lépp lu askanoo ci borom Tuubaa xaadim rasul nañ ko bëgg ak bëri baatin bi sëñ Tuubaa génnee jamono ci zahir coow li bari lool mu laajte lu xew ñu ne ko dey njaay ku baax ki nañuy wax ni ci zahir laaj génne jamono ma sëñ Moor Njaay ni bala ma koo gëm dama koo laaj suuf suuf laay laaj ndax daay jël bàyyi sëriñ Saaliw mbakki suuf laay jël ndax laay laaj ndax daa jël sëriñam maam Cheikh Ibrahima Fall suuf laay laaj ndax laa jël sëriñam sëñ Darou Xasan Ndiaye suuf laay laaj ndax laa jël sëriñam sëriñ Massamba Diop Samb daal di jàkkaarloog suuf si ma Cheikh Mor Ndiaye daa bàyyi wax ak moom kooku am na baatin de xam nga lu mu ko wax dama lay laaj axaqu ma qiila am laa bamba xat taala ramzan fa zaaka jal jaljalun nazala kii moom mën a woy barke Xaadimu Rasuul suuf la koy laaj bu laajee suuf ne ko ndax dangaa jël bàyyi sëñ Modou Moustapha mu ne ko xaw ma kooku de dangaa jël bàyyi Cheikh Mouhamadul Fadal mu ne ko xaw ma kooku de mu ne ne ko ndax dangaa jël le serviteur éternel du prophète mu ne ah kooku laa xam borom Touba mii liggéeyal Moustapha mu ngi ci sama biir mboolem ñuy liggéeyal yeneen bi sëñ Touba moo nekk ca kanam moo tax gis na Sénégal gii ñi xamul rek Basiiru ñu xamul rek coow li moo bari mais mag ñi nekk Sénégal ñëpp mën naa la ci wax kenn par kenn ku ci nekk seedal nga Serigne Touba amul morom. Cheikh Saadu Abi borom Nimsaat xanaa ñëpp xam nañ ko Cheikh Saadu Abi borom Nimsaat xam nga lu wax Serigne Touba dañu ko xaadim rasul bi ngay dem ci géej gi weeru fukki fan ak ñeent nga waaye bi nga delsee jantub diggu njolloor nga ku bañ Serigne Touba tiim la génnal asamaan yàlla ji la wax. daani du ma ndokkeel borom Touba ndax amul ndam l'islam lay ndokkeel ndax lislaam a am ndam l'islam dañ koo yeew ci xur wa ca gabon koo ni xettali ko mu bañ Seexul Xadiim rekk jóg ni dana xettali l'islam ñu ne ko bindal mu ni wa badrun muniirun xaaba fi lxarbi suma laaqa min alxarbi samsa rifatal waltisaara fa yaa ajaban baabul mataabi mufattaxun li kulli muridin raama min ko jiwaara kon ñu ngi jéggalu ñëpp yàlla ñu teel koo yëg ba lu si ëpp ñoom benn yéene ci Thiès parce que dafa am loo xam ni dañ ma ko waxoon daaw dañ ma ko sasoon dafa am ko daf maa woo ba mu ñëw mun ma Abdou Karim damaa bëgg ngay fàttaliku waa hôpital parce que màggal ñëpp xam nañu sogi day bari ñi ñëw hôpital doon bu doon dem Touba par yàlla daf ñu teer hôpital dañuy am jafe-jafe mooy lu nu xewloo parce que daaw dañoo amoon ci jafe-jafe yooyu ni ma ren nag. damaa bëgg nga fàggul nu ko ma ni ko kon de bu soobee yàlla de damay toog defal leen ay teraanga ak ay berne di leen ko indil ak tamit mécanicien yi dépanne gratuitement yóbbu leen ay xéwal loolu daal ba ma si laajee sëñ bi ndigal mu ni ma loolu moom dara mënu koo gën koo kawe kon boog di ñaan tamit ñu fàggul ma si ñaanal ma si min mi gën a yolof sëñ Touba moom ku ne mënu nga ko liggéeyal fu ne ñii dañuy nekk dem Touba ñi nekk si yoon bi rek di gàttanu ganam yi wasalaam. Ah, asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant wax dëgg yàlla di sant rek ndax safar gi moom wax dëgg yàlla daa mi <laughs> nit ñi lekk nañu ba suur naan nañu wax dëgg yàlla tagg nañ fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tagg nañ kii nañ fi Serigne Touba wax dëgg yàlla daal ñun ñëpp kontaan nañ kontaan daal laa mën a wax. ñun ñëpp kontaan nañ bég nañ waaw yal na yàlla def mu nekk ay safari safar ñu def ko mu nekk ay safar yu bari ndax chaque année mu gën a mu gën a yokk chaque année mu gën a neex yal nañ yàlla may nag bu deewee ne mu dàq ren ci darajay Mohamed. maaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen remercier bu baax a baax a baax madame Mbodj donc di sant rek di ñaan yàlla di fekkee at mu ne ndax euh, première édition la ñu commencé fekkee ba tey jii nii. kon donc boo xoolee premier édition ak léegi commencé ca ginaar ba tey ba ci xar ba ci béy tey ñu ngi ci nag su ma yeboon ne ñetti at yi mujj yi ñu ngi ci nag tey boo ñëwee ci village bi nga xam ne sañ Touba loo ko lebal rek mu fay la ko kon donc tey boo ñëwee ci village bi xam nga ni tey am na changement sànq rek ñu koy waxtaanee dañ doon toog. duñu am sax fu ñu toog mais tey boo toogee tey bu doon taw sax tey am nañu couverture euh, nga gis que ni milieu bi tey euh, euh, ministre yi ñëw na ah président mu demee ci tey ñëpp ngi fi kon nga xam ne kon affaire bi mi ngi avancé am dafa ala daw me ndax tey ñu tuddee ko ministre ba ministre tey teew fi ak délégation kon ku ñëw fi rek tey xam nga ne am na changement boo xoolee milieu bi nii rek wax dëgg yàlla sax am na changement village bi ñëpp am nañu entente ñoom ñëpp def nañu benn lañu donc macha allah affaire bi neex lépp doy lépp doy añ yi macha allah reer yaa ngi ni millier jàng yaa ngi ne ña sa nekk ña nga fa firi bi macha allah donc sant rek di remercier bu baax artisan yi ne fii ci biir ndax lépp ñoom la ndax seen unité moo indi lii lépp tey donc bu ñu àndee ba def lii. ànd ak seen président kon tey avancement rek laa ci gis di ñaan yàlla déwén buñ dikkee dañuy fekk lii tey macha allah ñu toll ci ñaari nag wala ñetti nag baa gileem sax kon donc sant rek alhamdulilah rabil aalamiina di jërëjëf tamit sunu càmmiñ li chaque année mooy yor euh, filmer fii tey tey yaa ngi indi appareil bi kii bi tey télé bi. tey dañ daan filmer suñu bopp tey nga indi télé kon donc avancement am na ñu ngi sant bu baax a baax baax di ñaan yàlla yàlla boole boolewaat ñu fi jigéen ñi ne ci waañ wi di togg suma ma premier première édition ñoo fi bokk nekkandoo kenn changé gul kenn manqué kon dañuy ñaan yàlla rek yàlla bu kenn manqué góor ñi yàlla bu kenn manqué macha allah rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax di jaajëfal ñëpp rek. ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar waaw di rafetlu kàddu yi nga fi jot a tàbbi di kontaan ndax lii nii du premier jour ñu def ko yàgg nañ koo def di ñaan yàlla yàlla may ñu ay bis ñu yàgg koo fekke di rafetlu bis bi torop waaw kontaan nañ ñun waa village artisanat suñu xol sedd na ndax xaw xewle woote nit ñi ñëw yombul waaw mais bis bi boo xoolee ni mu mel nii ñëpp ñëw nañ waaw docteur Ndiaye ñëw na. le président Amadou Makhtar Seye ñëw na waa village artisanal bi ñëpp ñëw nañ ñu ngi rafetlu bis bi di ñaan yàlla bu déwénee kenn bañ a manqué ñu koy fekke ay ati at at sama xol dafa sedd ba mënu maa wax ndax bisu sëñ waa moom moom géej la lem la waaw lu ñu waay def daal sëñ bee lay fay ñu ngi kontaan di ñaan bu déwénee kenn bañ manqué gis nga jigéen ñaa ngi nii ñëpp jàpp nañ baas bi sa waay bernde yi ceeb yi neex na reer baa ngi nii ñuy waaj a kii Modou Faye ngi nii nag kii mooy Baye Fall bi ak ñoom jiili ñoom naar ñoom jibi ñoom Alioune Togoda bàyyiwuñu kenn wax dëgg fa yàlla. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di ziar yéen ñëpp man la maam Abdou ñu naan ma Abdoulaye Diouk euh, may joxe sama appréciation rek ci RTT di sunu tele ñun ñëpp. Euh, ñu ñëwoon fii ci safar gi ñuy def ci village artisanat bu cees chaque euh, at ñu fiy def safar commencé woon ko nag ci café euh, xale yi doon ko commencé ñu koy ànd ak ñoom ba nu egg ci di am di def tey jii ñu rey fii nag ñu nekk ci sant lépp di santale sëñ Tuubaa rek ci bis bi loolu moo nu waraloon tey jii sunu participation ci mbir mi. di remercier tamit ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañ ci muy entourage bi ñi nga xam ne ñoo dëkkandoo fii ñu mel ni ñoom Mass Joxaane ñoom madame Mbodj ñoo ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant parce que ñoo ñëpp Aïda Mbodj di ko gërëm bu baax a baax moo mook Mass jàpp nañ ci bis bi bu baax di di gërëm tamit euh, président Sey muy Amadou Mokhtar Sey di président chambre de métier moom it jàpp na ci bis bi euh, bu baax a baax a baax euh, di tamit gërëm Euh, docteur Ndiaye sunu ministre di ministre tutelle ñun ñëpp tamit moom it ñoo ngi koy gërëm bu baax gis nañ participation bi ak teewaay beeg yëpp ñoo ngi gërëm ñëpp nag ci bis bi di gërëm tamit sunu soxna yu baax yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañu participer ñëw jàpp ci liggéey bi ñëw jàpp ci xidma bi ñun ñëpp ñoo ngi leen di gërëm wajalilaayi maskanitu baabaat misrak mi abijaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani tubabat misla ismi abijaahi xayri man nabat wasalliyan alayhi abdal salaat